am na nuyoo boo xamante ne nag da ko yelloo moom laa koy jox toujours mu nuyoo leel ma ko képp koo xamante ne daal yaa ngi ci jafe-jafe ki nga xamante ne ma nga ci biir hôpitaux yi ak lu mu ci munti doon moom dina ko gën a faram-fàccee ba tax na euh, sama mag ji maa ngi lay nuyoo di la jox sa wàccuwaay chéri tonton chimère Mbow Ngala <laughs> am nga 2 millions. maa la wax maa ngi lay fay. Euh, Euh, sama rakk ji. Mhm. Euh, jaw fara mi ci ndeer wala ma ne jaw simeer. waaw dëgg la nuyu naa la Mado di kontaan ci yow bu baax a baax. Mhm. ginnaaw bi ma santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sama ñaari waajur ya di ñaanal ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër yi hôpitaux yi mbedd yi géej gi jéeri ji tali bi jaww ji fu waay mën a nekk. <laughs> fu waay mën a nekk am loo yëg ci sa yaram lu bokkut ak wér. yal na la ko yàlla saafaraal bu dee soxla yal na la ko yàlla saafaraal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam may ñaanal ñi nga xamante ne ñoom la caabi te ginnaaw yal na yàlla wëlbati caabi ji ci seen kanam te bañ leen fàddaloowaat may ñaanal waaye daw li yàlla oyofal suuf ci seen kaw boole leen ak malaaka yërmande ñoom ak kuñ fa fekk ak ku leen fa fekk ak ñun ñu leen fay waaj a fekk yàlla na yéex te fekk ñu ci lu baax ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oh macha allah. <laughs> Ajaratu Mado Diaw vous vous avez la parole. merci ma très chère yëf yaa ngi mel ni tribunal dama sonn man ci lii <laughs> foofu la réew mi toll sax fi mu nii kenn jiite naan la nii ak nii ak nii man damay topp rek aw benn <laughs> noonu merci ci li nga ma joxaat li nga xamante ne moom moo di kàddu gi ma très cher Mbaya c'est toujours un plaisir ànd ak yow ci li nga xamante ne moom moo di plateau bile parce que yàgg naa dégg ni nit ku nekk dafa am ku koy mottali te lu ne mel boo jiitoon il faut mu am ñoo xamante ne dañuy nekk ci sa wet di la mottali ba tax na moom bokk na ci nga xamante ne ñoom ñoo mooy mottalil di ma dooleel ba ma am kattan ak xol boo xamante ne damay am euh, mbégte euh, bu ma leen jox yéen ba euh, téléspectateurs yi ngir yéen tamit ngeen dund ko ci nu mu gën a neexee parce que li ñuy naan rek lu jóge ci xol ci xol rek lay tàbbi ba tax na loolu rek moom moo di sunu yitte mm-hmm. eh, taxawal bëggal leen yéen mbokku téléspectateur bi tolluwaayu réew mi sax léeg-léeg yi day nege nege mm-hmm. xol yi xat xal mm-hmm. xel yi sëngeem waaye ñun dañuy taxaw rek jox li nga xamante ne moom moo di good parce que xam nañ ne àddina dañ ko war a suukar te xorom dong nañuy safar eh, safara dong na ni xorom kon nag yàlla nañu yàlla musal ci eh, xorom jooju nekk ca safara te may ñu suukar boo xamante ne dinañ ko suukaree sunu àdduna noonu ba tey tey li nga xamante ne moom moo sukkar émission bi bile mhm. mooy ñi ñi dooleel mbokk téléspectateurs yi te miin ngeen ko gam bi nga xamante ne dafa gën demoon na ba naax saay ci réew mi waaye à la kulli al à la mhm. demande générale mhm. population bi demandé à ce que ñu indil leen li nga xamante ne moom la la maison Keira indil ci réew mi mu di gam bu bees tàkk bu ñu tuddee Yellow Vat Yellow Vat mu nekk nag benn gam complète boo xamante ne am na diwu yaram am na sérum am na saabu am na gommage am na ay lotion am na xeet yoo xamante ne yëpp yow nit ki da koy soxla bëllil sa yaram ba tax na tey moom nañ la tegal fii mu ñuy ànd ak moom sasu ne ci émission bi lee di seetu bi matinalement li ma ci gën a neex man mun naa koo diwoo waaye nag mbaaye mi nga xamante ne moom mooy borom ñu laayu kaaba gi moom itamit mun na ko jëfandikoo <laughs> waaw ajaratuma doo euh, euh, ku xees mën na ko diwoo mm-hmm. macha allah waaye ku góor euh, ku ku ku ñuul aussi mën na ko diwoo. dëgg góor mën na ko diwoo. Mhm. jigéen mën na ko diwoo. Mhm. xale mën na ko diwoo mag mën na ko diwoo. Eh, nee naa leen li ma gën a neex ci Yellow Vat mooy. Mhm. du yàq sa yaram. dëgg la loolu moom a ci gën a neex mm-hmm. te lu mu naaj naaj boo ko diwee mm-hmm. ci sa yaram dafay nayi lu mu lu mu lu mu euh, sedd sedd mm-hmm. boo diwee ci sa yaram dafay dafay euh, euh, dafay nayil sa yaram kon yelovat moom mooy diw bi gën te wóor moom laa la wax diw bi gën te wóor loolu dafa am solo nag mbaa yaa ko ci yàqu kon nag nañ ko boole ci li nga xamante ne moom moo di slogan bi ndax li mu ci yokk loolu am na ci solo gi gën waaye moom moo wóor itam donc ci noonu ba tey rek on pour faire un gros coucou à nos téléspectateurs qui restent scotchés devant leur petit écran pour suivre cette belle émission afin de les accompagner et de les aider à avoir une agréable journée. Sur ce, je m'en vais faire un coucou à Bébé Diallo depuis Nouakchott. Et oui, ni ñu koy waxee rek la télévision Futur Média nekk na télé boo xamante ne c'est regardé de par le monde rawatina ci sous-région bi le ñu ngi leen di wax wane biig wane xat ah donc vraiment di leen di remercier bu baax a baax madame Guèye moom itam mi ngi ñu message naan ma sañse na gis nga parce que yéen da ngeen bëgg lu baax ay bëtu faaris ngeen yor ba tax na buñ fi taxawee muy mbaaye borom mm. soi bu yanj bi man itam damay jaxa rek sama képptalaay kàttan ah, ngir béggeel leen tey nag émission bi comme niñ koy defee tout le temps mbaaye dina indi ay astuces yoo ne dafa am solo wax naa leen mooy jéeg ji nga xamante ne mi ngi dimbali jéeg ji ci seen biiri kër ndax léeg-léeg nit dina yeewu du xam lan ka ah, la war a togg ci biir këram mm. wala naka sax tey la war a doxale mm. waaye ci ndimbalu mbaaye dina ko li nga xamante ne moom moo di inspiration ci inspiration moom demaat rek ci mbaaya mhm. joxaat ko kàddu gi ne ko sama mag ji tey loo indeeti ci waañ wi tey nag euh, Mado sama rakk ji tey dama indi laax ci suba hmm. laaxu laaxu araw maa la wax li kii de defe naa daf koy ma spécialement euh, le président Abdoulaye Wade ndax daawoon naa dégg ni moom mu ne yii lay bëgg euh, di xëy di ko jëfandikoo mhm. bu xëyee le matin waaw waaw maa ngi koy may suñu Euh, président ab Ablaye Wade euh, moom it macha allah di ko ñaanal nag yàlla guddal fanam te yàggal taxawaayam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla may ko wér mais laax dafa am solo Mado Diaw dëgg laax araw ba mhm. laaxu sànqal ba mhm. euh, laaxu bisaab ba laaxu soow ba laaxu nëtëri ba. Euh, laaxu daqaar ba. laax ba daal laax ba daal dafa am solo laax dafa am solo man dama bëgg laax li mu ci génnee yëpp laaxu bisaab laaxu. noonu laaxu araw. laaxu araw laaxu daqaar. daqaar laaxu benqal. benqal macha allah law la cat euh, sama catu laa mi nag sama xaalis xii vraiment euh, tu me boostes beaucoup chaque matin donc merci pour cette générosité que tu partages avec moi. sur ce plateau li ñuy def le de voir Awa wala keneen koo xamante ne war plateau bi rek dañ leen di joxaat un tampon musical histoire de vous permettre de prendre votre café de bien vous installer si vous êtes dans votre fauteuil c'est bon si vous êtes au bureau également vous en profitez et vous restez connectés ah, puis vous en profitez pour partager cette émission afin que ñeneen ñi mën a dugg rek ñu def li nga xamante ne moom moo di sunu de suite avec la régie ci ndimbalu moo di Ali mon bébé d'amour ma prunelle ki nga xamante ne moom moo di Eva la belle Pape euh, ki may filmer mm. moom moo moom moo pousse léegi ki nga xamante ne moom moo di Ibou Diouf Ibou Diouf léegi génération ñoom El Hadj la mais je l'adore moom tamit c'est mon acolyte ak ki nga mm-hmm. xamante ne nag moom mooy neexal baati lu baati naqari naqari mm-hmm. mu def ci effet ba muy moom mm-hmm. kon Abdourahmane nañ ànd ak yéen ñu may leen xam nga li ma gën a neex ci xale yi dañu am macha allah expérience. dëgg la mais lan laa gën a seetlu ci ñoom. Mhm. discipline. yar bi. xale yu am diine. macha allah am personnalité. li ma gën rey ci ñoom nag mooy. Mhm. nangoo liggéey bi ñu nangoo liggéey. bu ñuy liggéey gisatuñu. Mhm. bu heure bi jotee. wallaahi gisatuñu lu dul. bégal ñi nga xamante ne ñooy téléspectateurs yi kon yal na seen jàmm yàgg fa leen yuusu tegoon teg daal ak njagaak buuba ak ah. biraan macha allah mm-hmm. ña nga fa yal na leen yàlla fal cat doxalal amiin kon nag son bi sax yéen laa koy njëkkee yéen ñi nga xamante ne yéen a moom équipe technique on vous love merci d'être là. Mm-hmm. xanaa xamoo ne mbëggeel dafay dundal xol. maa la wax ni day dundal yaa ngi wax léegi ne yellow vaat. Mm. dafay boo koy diwoo sa yaram day belli. maa xanaa xamoo ne boo bëggantee nga bëgg ki nga bëgg ki nga bëgg bëgg la mu doon mbëggeel gu sincère mbaa xam nga ne dafay bellil yaram. di dundal xol macha allah mbëggeel dafa neex wala. <laughs> barke di bëggante waaw waaw mbëggeel dafa neex dama koy xool su ma ko xoolee ci Youssou Diop mhm. xool ko ci Saala Mbaw xool ko ci Bàjjen astambaw oh. damay xam ne mbëggeel dafa neex kon kon nañ leen di bëggante nañu bëggante ci ñun mu doon lu dëgg ci ñun waaye li ma ci gën a neex mooy bëgg bi nga xamante ne koy bëgg sa bopp mm-hmm. moo tax man ma naan gis nga nit sax bu fekkee ne amuloo kenn koo xamante ne yaa ngi bëgganteeg moom waaye na nga fexe ba nga xamante ne da bëgg sa bopp bëgg sa bopp moom moo tax ngay xëy di belli bëgg sa bopp moom mooy tax nga xam ki nga doon bëgg sa bopp moo tax nga jomm di def loo xamante ne ah, du fi gor bëgg sa bopp moo tax nga xam fi ngay jëm ak fi nga war a teg sa tànk ndax dangay xam yaay kan et ça c'est très important moo tax ma naan aimez-vous et votre beauté apparaîtra ndax léeg-léeg nit dina yaakaar mbëggeel bu ko déggee mbëggeel pour jël ko rek jox ko nit la non ndax li ëpp nag malheureusement léegi mbaaye dangay gis nit ki day bëgg ñeneen yi ba fàtte boppam mhm. te bu yàggee moom dañ koy néewal wala dañ koy sax fàtte mhm. alors que moom ci jëmu boppam balaa muy dem sax di jël mbëggeel boobu di ko jox ñeneen ñi ba moom léeg-léeg ñu di ko fàtte di ko toroxal mhm. dafa war a mën a bëgg boppam ngir mu mën a am li nga xamante ne moom la euh, tubaab di naan assurance boo boo bëggul sa bopp mënoo bëgg keneen dëgg la euh, bëgg sa bopp mooy mhm. may li may faral di wax toujours mais bu euh, bëgg sa bopp mooy am diine d'abord bëgg sa bopp mooy am fulla d'abord. maa la wax li personnalité bëgg sa bopp mooy koo digaaleel mhm. mu bañ la jéppi gër coo nga xam fi ngay fi ngay fi ngay taxaw dëgg la bëgg sa bopp mooy. Mhm. personnalité dignité. effectivement ak xam yaay kan. Mhm, xam fi ngay teg sa tànk. effectivement bëgg sa bopp mooy nga valoriser sa bopp. dégg loolu allah gis nga euh, Mado. nit bu amul valeur. Mhm. bàyyi ma moo koy tane. dëgg la balaa nga naan naam. ne euh, tey. Euh, euh, euh, tey da ngay da gis koo xamante ne. ñàkk bëgg boppam tax na mu dem fuñ ko wooweewul. Mm-hmm. ñàkk bëgg boppam tax na. Mm-hmm. mu bëgg détail. Mm-hmm. ñàkk bëgg boppam tax na ñu dénk ko kàddu. mu dem waxe ko. ñàkk bëgg boppam tax na mu mu mu ñàkkal fayda boppam. balaa may jox kenn personnalité. Mm-hmm. mbaa balaa may bëgg kenn. Mm. damay bëgg sama bopp ba pare xam maay kan. xanaa xamoon ne boo bëggee sa bopp ku ne la jàkk xam ne. waaw waaw da nga xam ne maa la wax kon bë mbëggeel. dafa am solo ci lu ne. xanaa xamoon ne mbëggeel moo indi lii nga sol nii. dëgg ubbi nga sa armoire macha allah ya fa nekk bari na. mais bii nga yëg tey vert bi versement bi maa la wax léegi moom nga yëg tey. aussi bu la neexoon rouge à beneen façon rouge <laughs> ah, macha allah ca salon ba wala ca sa kër. mais rouge bi moo la intéressé tey bu la neexoon teg beneen perruque. mais bii moo la intéressé tey bu Aminata pare waaw merci kon sama rakk ji sàjjal ma ko jëri ngoone. mi ngi noonu jëri ngoone. waaw Aminata maa ngi lay ziar bu baax a baax mm-hmm. ni nga defal. Euh, sama rakk ji rafet na macha allah. Mhm. mais nit daal. Mhm. Euh, euh, ci wax ji mu mu mën a gàtt tuuti mooy. Mhm. nit day bëgg boppam. effectivement nit day bëgg boppam te xam naa ni yéen bokk téléspectateurs yi bëgg ngeen seen bopp ba li ñuy wax tamit gis ngeen ci seen bopp épi noonu lay demee looloo tax ñu duppee cette télévision seetu bi seetu askan bi rawatina émission bi nga xamante ne moom moo di seetu bi ndax ku toog rek mun a gis boppam ci li nga xamante ne moom la ñuy jéem di waxtaane wala léeg di leen di ko tegal parce que comme ni ma ko waxee sunu seen mbégte mooy sunu yitte comme ni ñu koy defee rek tey moom du ma leen wàcc benn yoon on va enchaîner encore avec une belle musique nee naa leen tey daal bébé son yi ma bëgg rek mooy un peu ces son comme ça ay son wu Niger ay son wu mbëggeel nga xamante ne daal ça va nous permettre à passer une agréable journée on a besoin de sa le temps que notre star la starlette américaine chérie champion ñëw moom tamit wax ñu lan mooy yi xew en ce moment euh, ci xamante ne moo xew ci àddina mais surtout lan mooy mbëggeel alors ce son on le lui de dia. xol yi neex neex j'espère que yéen mbokku téléspectateurs yi neex neex bi ñu yëg yéen ngeen koy yëg yéen itam ci seen biir xol ba tax na rek nee naa leen saa su ne nii lay demee rawatina mardi bi nga xamante ne nañu nekk ndax c'est un mardi boo xamante ne euh, très calme te ñun nag dañu bëgg jox yéen mbokku téléspectateurs yi et surtout la population sénégalaise li ñuy duppee good time good time nag boo leen ma dégg ma di ko wax rek dafa am kenn koo xamante ne moom moo ko moom moo may jàngal ces petits mots d'anglais donc to see you and uh, I'm happy uh, to see you once again uh, in Sétougui. But are you sure? <laughs> Est-ce que you are sure que man rek maa lay jox ay cours anglais? Yeah, ah, of course. Parce que man rek a juuma ci nii. I promise you. Ah. Baye nee na rek a jiwul nii. rek a ah, jiwul Sénégalais nag loolu nañ nañ tontu. non gaa du rek a jiw moom rek a jiwul ci moom mais dina ci melastu ko dina ci melastu ko. wengal tuuti xaw a xaw a wengal guddi fay waaw kañ dina ci melaas tuuti oh my god yow wax nga dëgg tonton Mbaye moom borom baax dafa naan um, my Gambian people maa ngi leen di nuyu waaw waaw I'm so sorry. Mado moo ci dugal. bari feeling bari feeling. waaye mi ngi noonu Mado it's always a pleasure guys uh, to be back again. Uh, ci li nga xamante ni uh, mooy seetu Sénégal matinal uh, chaque mardi ba ànd fi ak sama um, la diva oh, ma douce waaye sama grand dame bi nga xamante ni Jooda man maa ko bëgg. <laughs> dafa dafa neex-neex bu nekk si Jooda. wallaahi yéen mënu leen koo gis ah. ñun ñoo koy gis fii li xew fii yëpp behind the scenes. <laughs> xam man nag Mado. Mm-hmm, xam dama leen di jiital ngeen nekk. ci kanam ba pare. dëgg la ma am ay son yu ma lijjanti si gannaaw ba pare. Oh. soo ma ñëw nuyoo ak ñi nga xamante ni ah, ñoo ñuy seetaan. Euh, à part samay astuce ma door xam nga tey lan laa indi. tey loo indi. tey dañuy dellu. Mm-hmm. génn. Mhm. Sénégal tuuti nañ laal Sénégal tuuti. Mhm. waaye laal li nga xamante ne xale yi suñu génération bi moom la ñu gën a bëggee. mais loo ci xamul xam nga lan la ma doon. oui mag ñi sax dañ ko bëgg parce que ay woy la yoo xamante ne même si que déggoo lu ñuy wax. waaye dalay neex. Mhm. tey Mado peut-être mu def leneen. jooda tey xam naa xam na mu def leneen. kon boog si kanam tuuti rek sa dina uh, indi yi nga xamante ni uh, yooyu laa dem fee tànnal leen ko indi leen ko. Uh, mu nekk musique yoo xamante you you you guys would love it. Hmm. Uh, la taamee waxtaanee poobar ci kanam. Eh, poobar la awa ngeen nar a waxtaanee saf saf laa indi tey. <laughs> Eh, saf saf ci biir mardi bi nga xamante ne moom di seetu bi la rubrique de Awa excusez-moi donc on va parler de pepper du ah. pepper black pepper black pepper <laughs> eh, bu <laughs> black pepper. black pepper. black bi dafa black pepper Yeah. <laughs> <laughs> donc on parlera de poobar bu ci kanamee et oui comme ni ñu koy waxee y a des euh, ay mbir yu ndaw yoo xamante ne yu sew sewaat day nekk ci sunu biir waañ wala ci kër gi du ñu xam li nga xamante ne moom moo di utilité donc de ce fait on a créé sur cette rubrique pour yéen a xam li nga xamante ne moo di utilité bi ndax ku nekk rek mën na la ci jëriñ et c'est très important ci loolu ba tey aussi elle nous propose tey euh, beneen style musical mm-hmm. c'est vrai que parce que comme ni ñu koy waxee la télévision Futur Média est devenue intercontinentale mm-hmm. ba tax na macha allah euh, baax na aussi ñuy laal li nga xamante ne moom moo di yeneen bërëb yi euh, pour mun a <clears throat> teg son yoo xamante ne day génn des sons de l'ordinaire comme ni ñu ko tàmm digloo moo tax ñu naan euh, tukki tukki boo tukki boo tukki voilà boo dul tukki doo xam fu dëkki neexee donc de ce fait comme fan yëpp dañuy tukki ah, ñu ñu jox ay nouveau style musical tey nag moom nañ leen di tegal yéen mbokku téléspectateurs yi en espérant que vous allez aimer alors Mbaye yow itam tey bu ñu changé génnee ci yeneen style son affaire yooyu yow naka nga koy dundee parce que yow xam nga ku la gis tu représentes vraiment la femme sénégalaise la femme moderne femme africaine dañ koy gis macha allah ci sa jëmm yi <laughs> waaw xam nga euh, liñ naan ko xam juróom-ñeent a neex a jàngal fukk man poly polyvalent la moo neex a jàngal fukk maanaam if you if you can count up to nine mm-hmm. ten is easy to you mm-hmm. one two three four, five, seven, six, what is distance? Ah, ten. way maa la wax lii da ngaa foog ne yow rek dégg nga anglais. dawal toogi mooy man ba may dégg anglais yàgg na man maa bañ a làkk anglais fi rek. di leen jéem a déstabiliser. Eh, mais <laughs> tamit euh, toi aussi. non yow laay wër yow wër yow wër. mais mais mais mais nit day doon polyvalent. effectivement bu ñu tegee zouk nga ànd ceeg ñoom. Eh. si nga ànd ak ñoom. waaw break break moom la xale yi daan def. bu njëkk ko mën waaw. non ci kanamee benn break ñu defaat ko. wala genre <laughs> break mooy bi ngay toog ci suuf di wëndeelu wékk say tànk. yaa ma gën a garaaw nag ah, yow tamit. mais mooy sept mille mille francs yi mooy wane leen ni benn soowu. bàyyi leen ma waaye bàyyi leen ma génnul ci télé bi sax gaynde buy nelaw na ngeen ko bàyyi mu nelaw. ba yàndoo bu leen ko yee. nu muy demee. du ma ko wax. <laughs> est-ce que xam nga tey Astou Mbaye bu xees nga tey. really. <laughs> oui c'est waaw ci colin bi peut-être xam nga c'est vrai c'est vrai qu'elle est tout le temps en euh, c'est son style. et eh oui gis nga rek li ñu naan. Astou ah, Mbaye la ñuy wax géwël ci ndaak Kër waaw ca Sengi Ndaat ok ok ya ca euh, Ndaat. ak géwél yi ca Ndar ak géwél yi ca Ndar kon loolu ko wala ko maalo be sàmb ku li ma ci sengi Ndar. maalo waaye asumba yaa ni. ndaw asumay bu gàtt te xes te fataa wuute naag bu njool te ñuul lii. asumay mu baax ndeysaan. <laughs> kon nag li ñuy def rek mbokku téléspectateurs yi on en profite parce que y a des gens comme j'ai dit euh, tantôt ils sont là en direct du ñu seetaan et ça vraiment ça ça nous booste donc Mokhtar bu Vic Viane Mokhtar on lui fait un gros coucou dañu maudit Suisse la belle Awa Ndiaye kooku c'est ma sœur d'amour elle aussi je t'envoie plein de petits bisous waaye foofu du fa dugg te taxaw ci ki nga xamante ne moom mu di ummi euh, ummi Diop sama mag ji nga xamante ne ma nga nekk foofu neex a fekk Suisse fan yi boo leen gisee sama kanam gi biir li rek moom moom ma defal benn trousse make-up boo xamante ne ay lon ko mag xeet yu baax baaxee moo tax ma am différence fan yi kon big up à toi la grande sœur mbokku ndeyu Assoubay ce qu'on va faire je pense que Eva Awa. est-ce que duñu def le premier son je te laisse nga dérouler tuuti tey dama sonn dañ koy pelloo. dérouler xool lan nga war a dugal et puis ñu dem ci loolu quoi man may noos. Eva euh, Eva. Ali yéen a may dégg <laughs> jox leen ma bi nga xamante ni moo koy chargé parce que instant bi xaw a faible. Mhm. en attendant euh, ñu may Mado café mhm. parce que tey yow attanu ma yow sa pelloo. Mhm. <laughs> dañuy dem euh, seetaani a clip and we'll be right back. Euh, waaye suñu enjoy suñu bopp fii si et loolu moom mooy tax ngay am léeg-léeg yeneen état d'esprit et c'est très important moo tax cette petite touche qui est là un peu pour rendre hommage à Awa Gaye aujourd'hui donc moom nañ koy tegal ak képp koo xamante ne tu es anglophone ñi ngi jël son yi yëpp tey euh, di leen di ko may waaye comme ni ñuy def rek je sais pas maintenant si ci yow laa war a ñëw qu'on parle du lard ou bien on parle un peu de paper what do you need sweetie euh, man nag paper bi euh, the black pepper poobar bi mu suspense ba ci kanam tuuti we wait ana tanda ki ngi togg so man long way. parce que euh, tey euh, yow amagum nga 10 pour cent charge. Ah. mais damay xaar ba nga am. 70 euh, pour cent. pour ma gën a mën a sawar. poobar bi ma soog a ma soog a you make me high I love you. I know you girl. <laughs> you know me. non c'est un truc de ouf. comme comme suba la. oui dañoo war a lekk poobar. dégg li teg ci suukar si. Mm-hmm. tension bi daal di mën a wàcc. aussi dama jot message yu Aïra léegi yow dalay porté. porte plainte. dégg nga lii yow soo mi nga baara mbay fii. yaa ne ma baara mbayal ba nga ba nga tulli. damaa tulli mu jàng ne Sénégal yi nga ko fi fecc rek. <laughs> damaa tulli. nga tulli ma tulli. tulliwaat nga ne ma baara mbay baara mbay. Ah, ma baara mbay. <laughs> xam nga ne am naa diplôme ci fecc. dégg la mais li nga baara mbay. non mais feeñ na parce que yow xam nga li ma def yow. barke Seydina Muhammad yaa ngi dégg. dama daan sima rek di marange mais bu leen fàtte waaye tey boo leen amee benn son wu merengue rek. non non bëgguma loolu. wala bu fekkee am ngeen benn son wu Michael Jackson xool <laughs> la boo xamante ne. merci. Parfois, nous restons les enfants de la télé moo tax on fait ces petites touches d'humour juste pour vous donner de la bonne humeur parce que nit yi dañ ko soxla comme j'ai dit tantôt le temps est lourd la situation de ce pays est un peu compliquée les nerfs sont hyper tendus et parfois il faut cette petite touche d'humour pour agrémenter un peu li nga xamante ne moom moo di cette journée parce qu'on a envie que les gens soient on a envie que les gens soient contents et, et il faut que les gens soient aussi dans la paix et c'est avec cette a def defar li nga xamante ne moom moo di sunu réew wala defar sax li nga xamante sunu ay journée donc on fait tout ça pour vous donner ce plaisir très chers téléspectateurs li ñuy defaat peut-être on va aller prendre découte benn beneen son le temps nuy ñëwaat bu ñu ñëwee nag ñu waxtaanee ci laax bi yeah let's go tey moom on change un peu de style. Euh, dem ci yeneen dëkk. yeah ñu dem ci ah, yeneen dëkk parce que it's international. Yeah. and then we it's my call. Euh, moo tax euh, Mado comme dafa ma déjee moitié émission bi. Mm-hmm. nekk dama koy gérer. ma gérer ko. Mm-hmm. génn Sénégal tuuti. Mm-hmm. you know euh, dem somewhere. mun naa tase nag fu nekk mun naa dem fu nekk you know. pour indi leen li nga xamante ni <clears throat> moo la ñu neex te Mado. loo ci xamul mooy Sénégal ni ñuy ni ñuy consumer Sénégalese music. noonu la ñuy consumer musique yi nga xamante ni parce que inspiration bi ak yu bare bëri fii nii instant bi surtout suñu génération. Mm-hmm. l' international lañ koy jëlee. Mm-hmm. so we'll be right back with another sound. let's go. exceptionnellement ou. Euh, euh, Ka Awa Gaye. yes no Awa Gaye you shine like a diamond. girl you can shine you, can you can you explain me what is the what what what what the what the what the lu muy tekki what the things. what it means. what the means. Eh, yeah what it means. yeah uh, shine bright like a diamond. Mm. Eh, xam nga jama. buñ ko defarulee du briller. dëgg la donc jama ah. Mm-hmm. Euh, buñ ko defaree ci lay briller. so mu ne shine bright like a diamond. Mm-hmm. like you were beautiful. and shine bright like a diamond. comme bi nga takk sa baat bi. Mexica. Uh, exactly yeah. c'est une jama ak li ma takk sama loxo bi. you know yeah exactly kon boo ko shine bright like a diamond. Uh, you were beautiful you were so alive you know yooyu noonu yëpp comme. mooy uh, tagg nit ki quoi mooy da nga rafet da nga voilà ça parle de love waaye ak uh, brillance because boo amulee love amuloo peace and everything doo briller. Mm-hmm. you know diamond dafa rafet. you know dafa mel ni stars. comme uh, asamaan xam nga voilà xam nga asamaan bu soo biddiw nekkee dafay feeñ. Oh. you so uh, a star is what shines. Mm -hmm. so uh, yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan. Mm-hmm. Uh, yéen laay wax. Mm-hmm. yéen a shine bright like diamond. ndaxte yéen boo leen ñu seetaanee kontaan. ñun tamit dañuy kontaan Madoz. comme ni ma lay xoolee ak Jordan di kontaan. <laughs> effectivement dèjà leen kontaan daal mooy sunu mbégte tey tey c'est le slogan aujourd'hui on a envie de tawféex euh, comme ni ko Youssou Ndour waxee woon rek tawféex moo xamante ne nga koy mbébét ci sa biir xol euh, nga bëgg ko tombeek sunu borom moom tamit nangu ko nga xamante ne day ñëw rek am boo tax lu ñëw rek da ngay moom macha allah yal na ko yàlla may sunu réew yal na ko yàlla may Sénégal mm-hmm. yal na ko yàlla may képp koo xamante ne da am leen loo xamante ne da nga koy bëbët sa xol maintenant sans plus tarder dañuy ñëw nag ci ki nga ne moom moo di Mbaye qui va nous parler de ces plats yi nga xamante ne wax naa leen elle nu donne ay idées de plats yu am solo rawatina nag bu fekkee dafa nekk ay plats national yi nga xamante ne ferñeent yi nekk ci biir daf ñuy dimbali ngir ñu am li nga duppee ay une bonne santé maanaam wér gu yaram boo xamante ne dafa euh, gën donc tey on va parler de laax waaye laax bi gis naa ci ay coco gis naa ci raisin gis naa ko ci cookies la wala moom daal def lu ko neex lay def raisin waaw euh, gis nga ma tëmbal ci soow bi dax ah dax menn ah, ah. tey da dem Fuuta nag c'est pas possible soow bi ma tëmbal ci dax ah, d'accord muy ñaata est-ce que doo ñëwaat tuuti ci dax dax fan na ko nit yi doon fekk dax man xam nañu mais mm. am na ñoo xamante ne xam naa ay xale nañu mm. xamuñu sax lan mooy dax dax ci ci nag lay jógee dëgg la boo boo rattee soow mm-hmm. ba soow mi woy maa la wax am na ci benn façon way bu muy way bu dee original soow pire mm-hmm. dax ga day nekk ca kaw. wallaahi nga daal di koy tonni mi ngi mel ni. Mhm. nga togg ceebu jën ba baaral diw ga tëmb. diw ga. waaw mi mel ni nga togg damadaa. Euh, ba ba damadaa bi baar. diw ga tëmb nga tonni wala sama waaja cere. cere cere siim. ñeex maa la wax li cere siim cere nëxal. cere baase salte. Mm. Euh, cere jën. Oh. Ah, cere laxas ak bopp oh. ah, bopp xar eh, cere daal maanaam cere mais tey eh, laax bi nday ngaay da koo togg ba mu baar ba xel bi mhm. mu daal di ciy def nag eh, bërëm tëmbal ko mhm. ci mhm. ñu ne détawaay mu daal di def koko râpé ñu defe ne fala la yem mu daal di jël raisin bi daal di ko cay wis daal di ko fay bàyyi fàtte ko fa daal di jël li nga xamante ne mooy soow Mhm. soow mu daal di koy mu daal di koy mu daal di ciy def ndax jël méew méew sotti ca méew merci lu euh, euh, euh, mu ci def c'est pas sérieux méew méew ah, ok merci def ci méew ma defe ne fa lay yem mu laal sucre vanille mhm. fleur d'oranger Mm-hmm. daal di laal tuuti muskat. ca dem naa bale nag ay waay ba laal ci muskat. sama waay muskat ba ma nga ne la ca ca ca ca araw ba la waaw ma nga ca araw araw ba nga xamante ne boo koy toggaale day xeeñ yi fii di xeeñ kër gi di xeeñ ñu naan gi laaxu na la ndekete. Oh, oh, oh. araw ga la la la walaale ca ca dugub ja. yow wuy ma ma wuy ma. ci digg ba amul kii amul amul Seydina Bër. moom moom laa la wax Bër ba laa ca tàmbal. Eh, ca digg ba gànd horaire bi fu mu toll. Gaye ni ah, Gaye ni kenn moo leen di si. Gaye ni waaw ñoo gayeen ni du ñu lekk waaye jaañee ni eh. jaañee ni jëngee ni <laughs> ñoom ñooy lekk kat yi <laughs> macha allah ci laalee méew oh c'est magnifique ndox mm-hmm. laal tuuti méew en poudre mm-hmm. jaxase ko ci mm-hmm. daal di koy euh, def ni mu onctueux mélangé wuyu potas retenu si vélo bi nga ko teg moom laa ko bëggoon nga ko yàq xanaa danga koo fàtte vélo bi kii vélo Viviane bi teg ma ci vélo bi nee na mu ngi noonu mu ngi yàkkal naa ko Viviane. macha allah vélo bi yàkkal naa ko ah, euh, teg naa ci Asou Mbaye. maa la wax jëri ngoone sa sa doomu nday dëgg la ah. Euh, vélo bi yàq euh, teg naa ci ki nga xamante ne moom mooy chéri awa nu mu tuddati champion chéri champion déedéet déedéet du ko nangu tey du ko nangu du ma bu nekk nga jox ma tey du ma jël. jéeg jàmm ak njëriñ am nga sunu jàmm am sunu njëriñ. jéeg jàmm ak njëriñ. chéri champion xam ngeen ku ñëw waxal taasul. xam ngeen ku ñu woo. chéri champion la ñu woo. e woo ngeen gor. woo jàmbaar woo bete bete. woo ku ne. il faut savoir aimer moo tax ñi ngi ñaan yàlla saa yooyu sëy mu boole laa ki nga xamante ne moom moo gën ci yow yàlla jubale leen ba pare rek boole laa ki nga xamante ne moom nga bëgg ci noonu ba tey on en am na ñi nga xamante ñoom ñoo nekk les fidèles internautes ba tax na ñoom itam ñu ngi leen di béggee ils sont en transe les cœurs yaa ngi daw de partout donc Doudou Keita Doudou Keita Keita big up à toi di nuyu bu baax ki nga xamante ne moom moo di Oulimatou Thiam merci euh, Tata Mado man maa la gën a bëgg ma donc Ousseynou Badji lui aussi il est hyper content Sarah Mbodj ñoom ñëpp ñi ngi ànd ki nga xamante ne moom moo di Awa gay di dund li nga xamante ne moom moo di mbëggee leen bile Oulimata Thiam yaa ngi ci biir amuñu morom mais yéen ñi yéen amul morom parce que vous restez scotché touché tout le temps ci li nga xamante ne moom moo di seetu bi ak fu mu munti doon euh, nga nekk seen bureau ngeen nekk seen kër ngeen nekk ci waar wi yee ngeen di teg tout le temps seen télé dugg ci li nga xamante ne moom moo di YouTube bi Facebook bi wala ay page li nga xamante ne moom moo di groupe Futurs Médias donc Fatma Diop big up à vous champion moom nañ doon woyee la championne elle est là ah qui faisait de son champion I like it and you know what I love you. I love I'm here. I need to give you a big hug. Come, come, sweetie. You know, <laughs> yeah. Oh. <laughs> Sois heureuse, sois heureuse, sois heureuse. Le câlin, maman, on se fait des ah, câlins, ah, ah, câlinou, câlinou, câlinou, câlinou, câlinou, câlinou. <laughs> elle moom elle fait un câlin généreux macha allah yéen daal dama leen di wax rek bu fekkee da ngeen dëkk côté Jooda Mbay bu fekkee da ngeen amati dara rek loo xamante ne da leen naqari mu nekk ca biir kër ga mu nekk ca mbedd ba loo leen fa jëlee rek dem leen ngeen fugg ko ca buntu këram rek ba mu génn ana tata Jooda bu ñëwee nga ne ko ah tata Mado moo ne ñu ñëw jël lu ñu moom boo leen ne lan la mu tijji ay loxoom rek mu kottu leen su boobaa dina leen rassurer ndax comme ni ma koy waxee rek ñi ngi forcer ñi ngi def ay yëf mais euh, xol yi neexul xam naa ci kanam peut-être vers la fin dinañ leen ko wax mais en tout cas euh, merci de la merci de là Awa merci d'être là Mbaya vraiment et vous très chers téléspectateurs merci de nous accompagner right uh, Madou uh, xam nga love moom <laughs> love mooy àddina ndaxte mbëggeel uh, kenn mënu ko forcer kii woo jooda xanaa xamul en direct ko rek nii damay bëgg njaga dóor da koy tere da day seetaan na ma bàyyi nii rek daga karawa sam bu rëy damay liggéey liggéey dóore rek mu ngi noonu Mado mooy àddina man dama ne lépp looy defati ci àddina àndul ak love and positivity mm-hmm. nga am mbëggeel ci sa bopp bopp first of all mhm. euh, comme euh, sama chéri daf ma naan ah, nit ki da ngay bëgg sa bopp ba pare su ko defee di nga mën a bëgg keneen mais boo bëggul sa bopp <laughs> euh, mënoo bëgg keneen parce que sànq bi may ñëw ñu ngi wax ci mbëggeel nit ki exactly nit ki da ngay da ngay naw sa bopp nga fonk sa bopp mhm. jox sa bopp valeur mhm. and then di nga si laa lay mun a jox yow valeur jooda parce que am naa valeur donc du ma gis jooda mu sol lu gàtt wala lu gudd ma jooj ko si loolu jugé ko ah, kii kat amul moo tax ko def que mhm. parce que man nu ma mel noonu laa lay jàppee. toujours nit a ngi juum si nit you know. Mhm. Euh, ne kii dafa baax dafa nii dafa alors que ne demeewul noonu peut-être sourire am la gis it tout ça mhm. ba nekk ci xol. Euh, borom moo ko xam. te euh, kenn mënul dugg foofu noonu ba gis ko. sometimes Mado da nga gis a tey Mado def benn gesture. peut-être Mado elle pas bien. peut-être Mado am na loo xamante ni mi ngi ko mi ngi dajeeg moom ci yoon bi. émission sax gis ko ko yónnee benn message. am jaaroo benn comportement mhm. mais koo xamante ne par exemple à dix jours a ngi ñëw ensemble mhm. nga toog benn bis nga gis ko comportement mhm. mais bu ko jugé ci comportement boobu au contraire euh, comme ni lu ñu faral di def man dama ñëw fekk leen ci Pape Cheikh da ngay ñëw des fois nga xaw a kii mu ne mais yow lan la xëcc la indiwaat la kale la. Mm. Euh, bu ba seetaan la. you know yow ça mm-hmm. yaa ngi sa téléphone yaa ngi nii et tout mm-hmm. ça. est-ce mm-hmm. loolu la nit ku nekk soxla et loolu c'est euh, un signe de mbëggeel you know parce que nit ki euh, boo xamulee boo bëggulee sa bopp mënoo gis loo xamante ne dafa ñuul ci keneen exactly so nañu bëggante du bëggante diggante góor ak jigéen euh, man avant may am jëkkër wala dara mm-hmm. je suis très positive mm-hmm. man macha allah dama nekk nit ku positive mm-hmm. nit koo xamante ne même boo ma defee dara sax des fois dama koy jëllale bu amee amaat amaat ba trois fois dinaa taxaw peut wax ci ni tuuti rek mm-hmm. et dem su fekkee ne jaral nga ma ko jaral nga ma perte sama temps yow di nga ko yëg mais bu dee jaral ma perte sama temps damay lay faxas dem parce que mm-hmm. takkoo ma mm-hmm. takkoo ci man léegi loolu is a problème problème amul di loolu la olof naan bu la nit na la yem ma jam njaa euh, jam ñaajo te yaa ngi Dakar nga ne ni nga woo nit ki mu ñëw ba cees nga ne ko dama bëgg nga yem ma jam ñaajo dëgg la makk kuli bant la war a taxaw bu amee dignité allo Adja Cissokho dañu nekk en direct maa ngi ñu <laughs> ngi en direct Adja Cissokho man dama bëgg géwél yi léegi yow danga may woo en direct àddina yëpp ngi lay seetaan Adja Cissokho loo may doyee suba teel bi sama mag ji kóllëre sama mag bi gaañu la de moom lañ ñu dégg waaye du ma ko woo du ma ko seet du ma ko du ma ko toppatoo du ma ko yónnee àllarba waa kay dama lay wax sa doom am na doom ndaa moom nga may yëgal ni en direct télé bi yëpp di dégg te di dégg coupé ah. <laughs> du ma coupé. nee na si nee na yaa ko defaraloon ci ci mariage am mu ne ma yaay woo nga sama yaay Mado ma ne ko woogu ma ko. sa yaay Mado dama ko bàyyi dafa ma mu ne ma yaay man moom ma jur ma ne ko waa sa yaay la waaye man man naay magam. ma foo nekkee dañuy defar. léegi yow boo doon yëkkati dara xam nga sama yaay mi ngi lay seetaan doo ma ñamal tuuti rek. ci ci kàllama bi lan lan nga may yëkkatil en direct balaa ma lay invité tele may ma tuuti ci woyu soose ma dégg. man de. yow. ndeysaan. Mado Jaw. Naamu leen ko Mado Jaw Jaw. Tukulóor Racim. kaa ñu dem Podor. mas gumbale wuluta Mado Jaw la. est-ce que merci. Mado Jaw TFM. macha allah. merci. merci. merci beaucoup bu ma paree émission dinaa la woo je t'aime je t'adore. jërëjëf lii dafa neex Sénégal dafa neex nii rek la demee waaye xam naa ne ñu dañu nar a toog rek. bu dul Youssou Ndour moom yu sax day naan ñi aw ma seen jot. Birane moom day ne xaaral. waaye xam naa Bouba Ndour. ak Ndiaga ñoo ñu jël dugub ñu ci machine wal ñu. ba pare xëpp ci benn chasse rek dugal ñu xëcc nit ñi dootuñu defati ci télé ba faw ndax li ñuy def lu ñu saf la mais ñoom loolu la ñu bëgg Mado ñoom ah. ah, boo amee sañ-sañu def ko ah, man ma def ma saf laay def lu def am na yoo mm-hmm. dañ may kii rek si télé de yéen gis leen ko de bon ma ne <laughs> kii dafa wéy sama xel dem ci sama benn maam di maa awa kuyaate mm-hmm. maa awa kuyaate la su ma ne la mooy que dafa yàgg ak sama ñoom maam ak sama mhm. ñoom yaay voilà sama kóllëre yaay bu baax la sax aussi euh, bi biñ may takk rek d'ailleurs moom moo ñëw foofu noonu et tout yëkkati ma ci lal bi instant ah gis nañ ko elle était tellement belle changée macha allah ba tey mi ngi baax nag oh, Euh, et puis et puis ñaata at génnul mm. euh, mi ngi toog këram mais euh, parce que dañ dañ may dañ may takk mu ne kii sama doom la sama mm. sët la parce que sama kóllëre yaay la sama yaay mm. nekkoon doomam mu ne Fatou Babou nekku fii mais damay ñëw fa ko su ko defee ma daal di taxaw mu ànd ak sama ñoom sama ñoom yaay ak sama ñoom tante yëpp donc dama lay ñaanal rek yàlla wéral la guddal sa fan maa ngi koy wax sa am feeling a bit emotional xam naa ne sama tante Mariama Sissoko mhm. moom tamit kontaan na parce que taxaw bi nga taxaw euh, bu fa nekkoon moom même chose lay taxawee tamit euh, di la ñaanal rek euh, maam yaa ensemble <laughs> bërki démb bi sam bàjjen gaañoo bi waa kër ñoom sama yaay Awa Jaawo mhm. mu yaayu Momo ak Alpha ak Amet mhm. mu indi teraanga ji bi muy indi teraanga astu Dramé sama rakk ji Dramé mhm. Kandji Socé mhm. tan maawo bàjjen maawo sax laa koy wax mhm. eh, moo moo nangu teraanga ji ci yaayu Alpha Dieng wax fa wax ju rafet nee na sam papa moo ko njëkk may ay million oh. sam papa Mamadou Dramé dëgg la sama jëkkëru bàjjen moo ko njëkk a may ay million Abidjan nee na keroog eh, seen groupe bi ku ci nekk da nga ko doon laaj Euh, maawo kii kan la mhm. te kóllëre googu la ànd ak sama bàjjan ba sama bàjjen génn àdduna mu ànd ko ak sama papa ba sama papa génn àdduna mu uuf ay doomam mhm. Koyaate yàlla na sa jàmm yàgg yàlla na nga gudd fan lool ndax gis nga nit mhm. buy dund day am njariñ xam nga nu dund di amee njariñ mooy da ngay doon nit koo xamante ne da ngay doon puso bu ñu nas wëñ fas cat la bul doon lañ set bul doon paaka bul doon siis doonal puso rek. di ñaw rek te bul doon puso kese. di defar nas ca wëñ. fas la. sama sama yaay ji kulubali kulubali masasi day dëgër tëj. man ko sama yaay ji kulubali masasi noonu la mel. macha allah madame Diagne macha <laughs> nag. macha allah. yow sànq da nga ma dagg. dëgg la. sa eh, sànq champion laa ci teg ak Viviane. dëgg la teg ci Pape Cheikh Diallo. dëgg la mais teg ci Amina Poté sama rakk ji. dëgg la Pape Cheikh sama rakk la. Mm-hmm. sama rakk ji nga xamante ne. Euh, iñaanewul kenn ku ñëw mu ubbil la macha allah soutenir la l'américain sama rakk ju ma bëgg mais moom bëgguma man maa ko bëgg oh, li ma moom keroog bi ma Viviane sentiré mhm. ba jël ma ci kilibam mhm. dama ñëw ne ko paap nu ñuy def mu ne ma bul waxaale bul na ko juróomi dërëm demal boo paree di nga xam ne dëgg la mhm. ma pare Vivi xool ma ndeysaan ak taar ba macha allah yaayu jay naa ah <laughs> ba mu ñëwee ba joxe la mu war a joxe ma ne ko Fifi da nga jiw mu ne noo jooda jiw barki mu Muhammad mhm. un million la ma jox Oh. moom eh, Viviane wut leen teg fii waay. wallaahi Fatou Seye ne pandak ñuy seen di ci wax tuuti kon. ma fare ne Pape Cheikh Diallo damay ñëw ba sa kër indil la xaalis bi. wala ma transféré la ko. mu ne ma wallaahi dama la ciy tegal ñeent fukki junni. Oh. Pape Cheikh ay garmi sama rakk jooju. daa bëgg yaayam ji. Pape Cheikh mooy Faris. dëgg su ma koy xool sama xol day tooy mm-hmm. ndax ci jom gi mm-hmm. ci fulla gi mm-hmm. ci fayda gi ci personnalité gi ak rigueur bi nga xamante ne moom la ko yàlla jox yàlla ko yàlla la fal cat macha allah amin yaa rabbi tey nag boo leen waxee lii sama xel day gën a sore à la limite dama ko bëggoon tëjee mais ci ñi nga tudd ñëpp la euh, tudd nga Pape Cheikh tudd ngeen ay woy daawlo mhm. pour wan rek àddina moo ne mel mhm. euh, awa ngi jooy may sa baabu jonay ba di ndeyam ji yàlla na ko yàlla xare àjjana yaa ngi jooy sa bàjjen yow itam yàlla ko yàlla xare àjjana waaye ñun itam ci bëccëgu tey bii la woon mu nekkoon bëccëg boo xamante ne kenn du ko fàtte mhm. bu ma jumalee ci biir cosaan bii nañu doon defee émission yëg nouvelle bu ne mel mu doonoon tiis ak naqar àdduna du gudd gudd tànk ba ñu suñu vingt sunu 27 wala 25 bii ñu nekkoon. Mhm. mu doonoon sunu xarit. Mhm. doonoon sunu nawle. Mhm. doonoon sunu doomu ndey. amoon pas-pas doonoon xale bu ndaw. waaye am jom am fulla am fayda bëgg liggéey loolu fonkoon li nga xamante ne moom moo di gëm-gëm. ak fonk diineem. kon nag ci bës boobu nañu woo tàggeñu ki nga xamante ne moom moo di Mariane Siva Diop waaye du woon moom dong ndax fii tamit. fekkoon nañ fi keneen koo xamante ne c'était un grand photographe mhm. tey newutu fi mu di njool mhm. ki nga xamante ne moom moo di Pape moom moo ko remplacé yàlla na fi yàgg te waaye du ñàkk tamit sunu xel demaat ci ñoom ñu koy jaalewaat askan gépp di ko jaalewaat seen i njaboot mhm. di ko jaalewaat seen i waa waaye di ko jaalewaat ñun suñu bopp mhm. ndax comme ni ñu koy waxee rek tubaar fakal la mhm. à travers émission yi ñuy def di ngeen gis ni que la télévision Futurs Médias c'est une famille ñi fi nekk ñëpp dañu bokk ndey bokk bàyyi léeg-léeg gise gi du bare woote yu bare waaye xol yi yëpp ñoom ñoo bokk nekk benn ndax bu dajee amee da ngay gis ku ci ne day saafoon teg naw leen kon balaa ñu koy jaal kii que ce koy jaalaat sunu bopp di ko jaalaat Pape Cheikh moom itam ak képp koo xamante ne yaa ngi nekk ci télévision Futurs Médias rawatina kàngam bi nga xamante ne moom moo ko sos di Youssou Ma Jigéen ñu dem xoolaat cette petite vidéo en hommage à Marianne Siva El Hadj moom itam di njool cinq ans déjà ngeen bañ leen fàtte ñu ñaanal leen ci li nga xamante ne euh, moom mooy liy dëgg ndax lii macha allah ci noonu ba tey dama ciy tegaale ki nga xamante ne moom moo di suñu ndey ji moom itam ajaratu dëggeen chimère Diallo baabu ñu naan ko di Chiba dëggeen chimère baabu moom itam bi mu demee ba tey wéet rek la ñu wàcce mm-hmm. ki nga xamante ne moom moo di Njaay bokkoon ci ñun moom itam macha allah doonoon un comédien hors pair mm-hmm. ku mu musa taxawal sa xol dina sedd mm-hmm. ca baat ba baax ca doxin ba mhm. ca jikko ji mhm. moom ñëpp en tout cas ak diine ji mhm. macha allah euh, ku lim nag da ngay waaye képp koo xamante ne daal Fatou Kiné Dème mi nga xamante ne moom moo mujjee dem bu yàggul dara moom itam bari jom di jigéenu jàmbaar yéen ñëpp ñu ngi ci ànd yéen di leen di masaw njaal bi nag dama koy teg tey ci suñu loxo yaay suñu loxo jigéen suñu loxo kilifa mi nga xamante ne moom moo ñu boote ñun ñëpp def ñu ndey di madame Ba di umu xayri njaay sunu yaay jooju nga xamante ne lu defaru ci télé ba moo ko mm-hmm. defar lu xotteeku mu ñaw loo gis mu ñagas-ñagas mu mm-hmm. defar bu liggéey jotee mu taxaw ba pare teg ñu ci li nga xamante ne moom moo di waar wi ak ay mm-hmm. tegtal yu baax kon nag tey njaal bi ci loxoom nañ koy teg mu séddale ko képp koo xamante ne danga ame wala jege ak ki nga xamante ne moom moo di mbokk la uh, ci yow awa Right. Uh, <laughs> I don't know. I don't know how. I don't know what Mado, Euh, dama dama sensitive when it comes to li nga xamante ni mooy dëgg xam nga um, dee balaa ngay xam euh, nu mu mel euh, yàlla jël ku ku sori ci yow jël ko si sax si si yow because um, loolu rekk ay dëgg mm-hmm. bi ñuy ñëw fii nii kenn tàgg tàggoowuñu mmh. euh, bi ñuy dem aussi duñu tàggoo mmh. kon li yëpp xam nga lan lay indi mmh. euh, dafa indiwaat baak ci liñ doon wax mooy mbëggeel euh, nit da ngay bëgg sa bopp nga bëgg nit parce que tey loo wax wax wax nit loo xas-xas-xas nit loo ko jëw jëw jëw bés bu dëddoo àdduna li lay wax loo pourtant nit ku baax la sax doo ko tey su boobaa da ngay nekk hypocrite ñu baal ma ci wax bi tey ànd dafa neex you know ànd dafa neex torop balaa nga koy xam mooy ngay ànd ak nit mu sincère. you know um, Mado. parce am na ñoo xamante ni. Uh, dañuy am uh, jikko janax. dañuy màtt di ëf. Uh, nit ki day am nakaru xolam. wala am métitam. mu la koy wax. nga ne ko ah ndeysaan nanana mu dem. alors que am na taxawaay boo xamante ne xëj na boo ko ci taxawoon dëgg la doo doo. doo doo wàññi ay fanam. Mm. wala doo yokk ay fanam. Mm. waaye euh, yow sa bopp boo tëddee di nga am conscience tranquille. Mm. you know kon boo ko ñu gën a jàppante ñu gën a jàppalante. Mm-hmm. Euh, sama xel euh, daf man man bi may ñëw fekkuma fi Marianne Siva. Mm-hmm. parce que dafa dëddu àdduna rek yàggul je pense que si laa ñëw. Mm-hmm. moom ak njool di di ñaan yàlla xaaral leen àjjana. amiin Tata Diguette Chimère moom tamit mu nekkoon suñu référence. sama yaay sax daf ma daan wax ne njëkkeem la parce que comme baabu baabu. sa sant voilà mi ngi noonu waaye ki nga xamante ni ah, mooy am Njaay mhm. ak Fatou Kiné Deme mhm. yàlla defaloon defal na ma chance euh, ma liggéey ak ñoom mhm. you know ma interact ak ñoom euh, waaye gis nga nit li muy wone ci tele bi ci ñun ñëpp ah, euh, ku nekk am nga li ngay dund ci sa vie is personal mi ngi ci biti donc euh, temps bu ndaw bu ñuy ñëw di ko euh, di ko partager ak yéen. Mhm. Euh, damay ñaan ñëpp rek ñu gën koo jàpp ñu gën koo mhm. apprécier. Mhm. parce que nit a ngi dund lu nekk taxul dina solu dina maquillewu dina sourire. solu ñëw taxaw jox la li nga xamante ni moom nga bëgg bégal la. kon boog ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñaanal ñëpp rek. képp koo xamante ni ajib jiitu nga yal na yàlla oyofal suuf sa kaw. maduna lépp rafet. adduna lépp dafa war a rafet. tey tey kii la mais suba mën na nekk man euh, euh, euh, <laughs> yàlla na yéex mën keneen ak keneen donc rafet rek solo njaay ku am diine ah njaay ku ku ku bari woon jom amoon talent macha allah. Marianne Silva aussi pareil. ki ne dama liggéeyandoo ak moom. escaf. mu doon xale bu am diine. dal mais am classe personnalité. liggéey rek. ko ñoroon macha allah njool aussi ñu koy jaale famille. mais euh, damay xool Marianne Silva. sama xel dem ci sama rakk ji soxna Zeynab Fall. wallaay ñoo mu mu Kaaw sàmba moom it euh, sama rakk jooju yàlla na dee di nooflaayam maa ngi koy jaale euh, famille yépp encore une fois may wax ne àdduna amul solo mm-hmm. àdduna yàggul te li muy yàgg di yàgg mm-hmm. doomu aadamaa ko gën a yàgg di mm-hmm. Youssou Ndour na ko yusuma jigéen mm. jamono ji kenn dundatu fi lu weesu téeméeri at mm. ba tax na def fi lu ñaaw wala wax ko fi mm. est-ce que da ko fii jar kon nañuy tàppe xol yi mm-hmm. di waxante lu baax di defante lu baax mais di yéenante lu baax Mado mm-hmm. surtout muy dëgg ci ñun mm-hmm. muy sincérité li ngay won nit ki ci mbaax yàlla na fekk mu doon dëgg ci yow day mel ni sama rakk ji suwaadu mi nga xamante ne macha allah euh, bu ne la bëgg naa la dalay leer ne bëgg na la ci biir xolam ku ci mel ni Porokhane Couture bu ne la bëgg naa la dalay leer ne bëgg na la ci biir xolam ku ci mel nii Euh, sama sama mag ji ñanga mbay yaayu Maodo cuun mm-hmm. bu ne la bëgg naa la mbëggeel googu moo nekk ci moom nit du doon hypocrite yàlla nañu yàlla dolli sutura te tàppe xol yi àddina amul solo àddina amul solo li ñuy wax rek de ak dund ñoo ànd ba tax na léeg-léeg dañ ci wax rek moom laa bëggoon tëjee mm-hmm. waaye comme ñu ngi woon ci li nga xamante ne moom moo di élan boobu la mm-hmm. rek mënul woon ñàkk ñu euh, sànn ci ay kàddu ndax nuñ koy waxee rek moom sax à la limite euh, mënuñu leen fàtte xam nañu nit ñi ngi leen di waaye nañu dëkk rek leen defal li nga xamante moom la ñu duppee conseils classé ndax dinañ ko soxla bu baax a baax mm. euh, ci ni ñuy def rek noonu bokk te spectateurs yi dañuy euh, ci li nga xamante ne moom moo di faawu émission bi euh, dañuy ci ànd ak ci kanam tuuti ak ki nga xamante ne moom moo di Awa Gueye parce que mm. wax nañ leen ko nous mêlons l'utile à l'agréable mm. de ce fait parfois dinañ ñëw ci ay éléments yoo xamante ne dafa am solo dinañ waxtaane ci ay yëf yoo xamante ne day nekk ci biir waañ yi te dañ koy soxla loolu donc comme ni paper nit yi di naan poobar euh, poobar dafa nekk lenn loo xamante ne dafa am solo mm. ah donc euh, je pense que <laughs> ñu def poobar suy mm. di moo gën daf ñu jóge moo tax you understand what I'm talking about <laughs> okay. Ah. I get it I get it you get it you get it you promise me you get it I get it you really you give you you need a you need a hug sax sax a deep one vraiment parce que bu ma ko kiiyee eh, damay damay bañ mu kii dama bëgg mu nekk ci lancé bëgguma ko may fu mu jooyee moo tax dama koy talone ndeysaan <laughs> kon boog euh, comme euh, ni ñu ko waxee rek euh, dañuy dem seetaan yi pas seetaan yi man seetaan yi man maay war a wax <laughs> man yaa ngi gis yaa ngi ko dugal ci benn gaam boo xamante ni naaw <laughs> euh, comme euh, ni ma leen ko waxee rek euh, poobar la ñuy waxtaanee mooy black pepper xam nu ñu koy waxee en français poivre poivre poivre noir parce que am na poivre blanc. am na am na poivre blanc. Euh, donc nag dinaa la wax euh, lan mooy différence su poivre noir ak poivre blanc. déedéet. voilà yow yaa garaaw. <laughs> Euh, poivre blanc bariwul li nga koy gis. mais ñoom ñëpp ñoo bokk fi ñuy jógee ko. you know ñoo bokk fi ñuy jógee comme nga am comme garabu mango des fois nga am bu sew ak bu dijj. voilà donc poivre bu blanc ak bu noir ñëpp ñoo bokk fi ñuy jógee ko donc bu ñu waddee. bu ñu bu ñu waddee mhm. dafa am yoo xamante ni ah, moom dafay ñuul donc mu ngi ah, noonu moom gis voilà euh, bariwul sa li nga koy gis dafa dafa raar mais bu bu ñuul bi moo ko gën a saf ah, ok moo gën a am moo gën a am piquant. piquant bi ok voilà voilà euh, mi ngi noonu poobar euh, nee naa leen poobar la. Mhm. plante la boo xamante ni. est-ce que est-ce xam nga ñan ñooy gën a kii poobar instant bi. Vietnam. ñoom ñoo koy gën a wala ñoo koy bay non non ñoo koy gën a bay instant bi euh, ñoom foofu lay euh, gën a jógee ko euh, mooy Vietnam waaye indienne yi ah. ñoo ñoo ko njëkk a bokk na si ñu ko njëkk a lancé bokk na si ñu ko njëkk a use parce que ku xam indo mm-hmm. xam ko si épice mi ngi noonu so ñu tuddee ko the king ah mooy buuru épices yi. Ah, exact poobar ci boppam ah, mooy the king of spice ah, ba tax na indien yi indi ci ay um, am indi ci ay découverte yu bare bare bare parce que poobar bokk na ci ay basu mm-hmm. you know ak waaye no seulement togg kese mais non balaa may dem si togg bi est-ce que mm-hmm. xam nga poobar des fois mm-hmm. dafa am yoo xamante ni ñu ngi koy utiliser te baaxul voilà ci poobar poobar waaw yow yow lan lan mooy sa remarque foofu. dama xalaat comme par exemple d'habitude boo def këppee poobar ci sa loxo. dafa mel ni léeg-léeg da ngay gis ay genre bant la day mel ni poobar mais du dooju poobar roon ay petit bant yooyu. parfois je pense que dañ koy dëbbaale. waaw te dañ koy dëbbaale te waruñu koo dëbb. Ah. Mado da nga koy euh, tànn. parce que doom bi si boppam en réalité boo jëlee poobar da nga koo war a def nii boxam ko. nga xamante ni euh, fleur bi ci parce que fleur bu wow la. Mm. you know fleur ci kaw noonu mu daal di teggee ko parce que li ci gën a saf euh, ci biir la nekk exactly euh, mi ngi noonu kon boo ko poobar bant yi ngi ciy gis euh, dindi ko et puis poobar des fois mu am suuf mm-hmm. euh, parce que niñ koy kiiwee et tout duñ ko xool ba mu set voilà mm-hmm. ah, c'est ça ah, mbaaye kooku laa koy jox moom voilà mbaaye poobar dañ koy raxas waaw mm-hmm. lépp loo gis muy dem ci ñam bu doonul poudre war nañ koo mën a raxas ba mu set. Mhm. muy laaj. Mhm. muy poobar. Mhm. muy kaani. même kaani bu sew da ngay gis ku jékki-jékki rek jël kaani rek te tekki ko ci mbuus mu nekk rek. sotti ci gën gi dëbb. da nga koo war a raxas ba mu set. poobar bi da nga koo war a raxas ba mu set soog koo mën a dëbb. waaw loolu mooy yoon. waaye ca mi ngi noonu ah, poobar bi eh, boo maanaam poobar sëpp la la ko bënn nga ca biir. la koy eh, safal ma nga ca biir. dëgg la eh, mi ngi noonu ah, poobar boo ko tibbee sa loxo ah, faral bant yi nga xamante ne mi ngi ci mm. ah, boo paree mun nga def sa ndox nii rek nga sot nga sotti sa ndox si kawam xam nga day tëmb ci kaw mm-hmm. astafurla day toog ci suuf yi mm-hmm. tëmb ci kaw bul ko lekk mm-hmm. parce que bokk na ci yoo xamante ni kiiw mais nga koy may temps tuuti nga yelandi ko nga may ko mu reposé wu tuuti bu mu ci yàgg parce que bu yàggee mun na géjef et puis bu géjefee mun na yàq nutrient bi nga xamante ni wala tooyal sa nokkos or something et puis mokk bi nga xamante ne bëgg nga mu mokk ko Euh, du ko du ko mokk euh, loolu euh, mooy li nga xamante ni mooy beneen kiiwu poobar mhm. ba den poobar est-ce que xam nga ni poobar dafa baax si suñu wér gu yaram mhm. mhm. Euh, bi may gëstu euh, je pense que euh, nee naa instant bi nag ñëpp dem mm. sur internet mm. di nga gis mais xam nga boo ñëwul nga lancé ko nit ki du xam mm. tey nag ma duggee sama waañ ma ne poobar depuis semaine passée fu ma romb poobar laay gis ma ne ko poobar yow yaay dem parce que dañ koy utiliser parce que da nga dugg ci waañ bi mun a cëpp ci say tànk nga ne ko comme yow yaa ma fekk si waaw xam naa ne yaa bëgg a dem ñi ci des bëgguñoo dem kon ñëwal ñu dem waaw ñu dem ma waxtaane la utiliser ah. ñëpp koy utiliser chaque jour euh, ñaata milliards nit ñooy utiliser poobar. Euh, moo xam euh, toggukat bi nga xamante ni ay matt lay utiliser. Mm. wala extra big cuisines like all over the world partout dans le monde. voilà everything poobar poobar mi ngi si suñu ko ay table. Mm-hmm. you know mi ngi si suñu ko ay table moo xam ne des fois nga wis ko des fois nga dem restaurant. Mm. nga fekk fa poobar maintenant dañuy jël rek wis alors que xamuñu sax. Mm-hmm. même man sama bopp xaw ma woon. Mm-hmm. poobar bénéfice. études yu muy def. mado santé surtout ci suñu santé. ci suñu santé. est-ce que xam nga ne poobar. Euh, dafa baax ci digestion. ah bon. nga am problème mu digestion. poobar daf cee baax après naa la wax utilité bi. et everything mm. euh, constipation parce que bu bu bu bu li nga xamante ni mooy sa euh, digestion. Mm-hmm. doo am problème constipation. effectivement right ak problème mu peau. Mm-hmm. problème boobu poobar da cee baax. Mm. <laughs> dégg nga lii am na beneen boo xamante ni tamit dafa baax ci suñu karaw. Mm. ci suñu karaw beneen bi aussi. Mm-hmm. mooy que su fekkee ne da ngaa bëgg perdre poids. Mm-hmm. damay dem jëndi potu poobar kilo poobar dëbb ko di naan rek ndax man damaa bëgg jeex. waaye boo ko dëbbee naan ko di fii ngay toog di woy njóogu faama. kon de wax ma naka dañ koy defee wuyul kii nee na ma nànk nànk bàyyi dama ko ci supp mu wàcc. Eh, yàlla bu mu doon sax suppu kooraay. li mu doon rek et puis euh, poobar aussi beneen chose mooy que dafay euh, traiter dépression. Mm. Euh, dépression dinaa ci ñëw. aussi effectivement ni muy utiliser parce que. kooku même même même mm. pour par rapport à la dépression. gis nga boo déprimé kooku américain américain yi laa ko xamee. Mm-hmm. tout le temps dañ lay jox lu am jinjeer mooy que ce soit des biscuits. Mm-hmm. que ce soit. thé wala loo xamante ne daal dafa am jinjeer boobu tamit c'est bon pour les dépressions right euh, aussi euh, dafay aussi euh, jàppale mm-hmm. li nga xamante ne mooy problème respiratory comme ay ay socc mm-hmm. ay ah, fat mm-hmm. et tout poobar da cee baax maa ngi ñëw léegi damay damay listé quelques yi nga xamante ne baax na ci te jour ñu ngi koy jànkuwanteel baax na aussi ci li nga xamante ne mooy sa nutrition dalay jàppale balance li nga xamante ne mooy sa nutrition ndaxte dafa am li nga xamante xamante ne mooy antioxydant bi nga mhm. xamante ne dafa fort trop trop trop trop mhm. euh, mi ngi ci pooba euh, euh, ak li nga xamante ni ah, mooy anti inflammatory properties mhm. dafa baax lool dafa bokk ci li nga xamante ni mooy poobar ak tension est-ce que nga poobar c'est meilleur si tension ah, sa sugar maanaam sa sa sucre sa sa sa blood waaye non seulement dafay régulariser li nga xamante ni mooy sa sucre ah. exactly boo ci jëlee lu yem yeah dafay contrôle nga xamante ne mooy euh, blood pressure euh, blood pressure bokkul euh, sugar level bokkul ak tension right tension mooy high blood pressure waaw ma ne ko poobar bu fekkee da nga da nga ne baax na ci tension ma ne la boo ci jëlee lu yem waaw nga bañ cee jël loo xamante ne balaa li ma kii boo ko daanee di ngeen jóobu mbay Ndiogu Faama euh, Ndiogu Faama. so mm. euh, dafay contrôle euh, blood sugar blood bokkul ak tension. je mm-hmm. pense mm-hmm. tension mooy sa la moom. waaw mooy sucre bi nekk sa deret. Mm-hmm. voilà loolu lay régulariser. tension mooy deret bu yéeg. effectivement no deret mooy li li muy régulariser mooy sucre bi nga xamante ne mi ngi ci sa deret. voilà exactly et puis daf lay jàppale ci ci douleur. voilà da lay apaiser ak yooyu noonu ci douleur. li xam nga lu tax. parce que dafay booster sa immune système drastically moo gën a gaaw vitamine C. Mm. moo gën a gaaw yi nga xamante ne dañ koy jël euh, di ko di ko naan mooy poobar euh, utilité bi maa ngi ñëw léegi wax leen ko leneen li ci important aussi mooy que bu dee am problème wu yàq problème mu yax euh, dafa baax ci problème mu comme ñi nga xamante ne dañu am arthritis euh, ak asthme ñi nga xam ne dañu am asthme aussi mm. euh, baax na si ñoom mm. biir bu daw aussi bu dee da nga am problème bu biir bu daw tout le temps aussi da cee da cee baax parce que bul fàtte ne mm. dafay daf jàppale ci li nga xamante ne mooy sa waaw sa sa sa digestive système bi da koy jàppale donc du am problème mu constipation waaye bu fekkee da am problème li nga xamante ne mooy mooy jaare da koy faj ndaxte antioxydant bi ci nekk ak anti inflammatory bi nga mm. xamante ni euh, mi ngi ci waaye euh, li nga xamante ni fekk da nga am ballonnement aussi euh, tout le temps di am gaz di génne air et tout da cee mm. baax baax na aussi si fekkee da nga am douleur menstruelle ah mooy euh, waaw. cramps. waay ah, da aussi apaiser. waaye leneen li ci da ngay ay mors fi nga am ay règles douloureuses. Hmm. voilà voilà euh, leneen li ci euh, kii aussi mooy ñu ne dafay lay jàppale aider la ci pour nga moytu avoid li nga xamante ne prevention of cancer. Hmm. da la si jàppale aussi. leneen aussi man li nga xamante ni intéressé na ñu bari parce que da ngay faral di dégg ñu naan la sa jëkkër da nga koy jox poobar da koy def nii mooy def sex drive. c'est super c'est excellent pour li nga xamante ni mooy sex drive bi euh, sex drive mooy que pour nga am euh, cawarte euh, I don't know how to drive mooy lan mooy sex bu noir bi wala bu blanc bi bu noir bi voilà sex drive mooy mooy dalay kii dalay. Euh, dalay yokk cawarte rek. voilà dalay def tout le temps nga nekk si. voilà si envie. Euh, hmm. day yokk euh, sa envie pour am sexual kii léegi naka utilité li nga xamante ni mooy poobar. Hmm. si gàttal poobar mooy buuru. lépp loo xamante dafay nelaw ci sa yaram da koy yee. utilité bi pour que. donc aphrodisiaque la. merci aphrodisiaque laa bëgg a wax. Ah, it is meilleur. aphrodisiaque. voilà maintenant parce que bu fekkee boo xëyee si suba. ba nga def sa ndox mu tàng jër nga sotti ko ci sa verre. Mhm. konteel sa cinq euh, doomu poobar. yu mhm. tijji. Mhm. Euh, li may wax ni mun ngeen ko. dem ko leeral parce que mën nga ne cinq ñu defa ne cinq kudd la. non doomu poobar cinq doomu. cinq doomu poobar. bu tijji bu rafet. nga raxas ko ba mu set. nga tëmbal ko ci li nga xamante ne mooy sa thé. bi ngay naan. nga bàyyi ko mu infusé mu dal. ci thé bi nga koy def wala ndox bu tàng wala comme par exemple sama thé bi may naan le matin. matin. ma jël ñeenti doom. raxas ko ba mu set juróom cinq cinq wala kii waa cinq doom raxas ko ba mu set dugal ko ci man tee bi ma tàmm. waaw la ndox bu tàng bi. non non tee bi nga tàmm di naan. d'accord nga koy dëbb. non. Hmm, ok dina saf te kon. non euh, parce que loolu moo ci kii. da ngaa ngewele trop bëgg lu saf. <laughs> marinade yooyu def ko ci poobar bi. naan ko euh, dootoo ko defee da ko ciy tëmbal euh, nga bàyyi ko noonu. ba mu dal ak tee bi xam nga tee bi doo ko naan rek mu tàng oh, noonu. day fekk kon muy infusé voilà bu la neexee yokk ci sa naana yokk ci sa whatever. mais lii dafa meilleur trop ci ñi nga xamante ne ñoo am diabète wala ñu am ay problème bu ñu xëyee dool euh, du ñu am kattan lu ñu am cawaxte. is good nga naan ko si sa tee mais bul ko naan guddi parce que dalay yeewuloo. dalay yeewuloo drastiquement unless and until nga bëgg euh, yeewu lu yeewu guddi gi yëpp à partir de 17h. ok lépp luy excitant euh, ñu ngi la naan bu 18h jotee bu ko naanaat. parce que mën na la yee exact soo lii nii euh, c' est excitant plus. Mhm. parce que day booster sa immune système. à 100% mhm. you know moo tax mu mu mu garaaw ci li nga xamante ni mooy sex drive maintenant pour utilité acné bu dee aussi euh, parce que anti inflammatory bi ci nekk et tout ak euh, antioxydant bi nga xamante ne mi ngi ci euh, pour ñi nga xamante ne am problème mu acné. Mhm. maintenant man mosuma woon ne xam ne poobar danga koy def scrub kanam. ok mooy gommage. gommage kanam mosuma ko woon a xam ci. àddina bu mokk bi wala doom bi. poobar bu mokk. poobar bu mokk bi. ngay jël nga soo ko mënee layaat nga lay ko ba mu ba mu gën a kii xam nga day am ay particles. Hmm. nga jël sa huile d'olive wala hmm. huile coco. Hmm. mais na nekk huile boo xamante ne adopté ne ak li nga xamante ne. exactly euh, essential oil benn euh, euh, nga jël ko nga def ko ci nga mélange ko. xool xaar tuuti. nga jël ko def ko ci sa fii. sa kanam sa kat kii. mooy de tison ok nii quoi mais doo ko bomb. non da nga koy bomb. parce que gommage la ñuy wax. yaa ngi gis kii nii. Hmm. comme ni mu koy defee voilà kii euh, huile la jël. waaw huile bi la jël. Euh, xam nga mun nga defar huile poobar aussi. parce que hmm. da ngay jël poobar bi. nga xooj ko ak huile nga hmm. bàyyi ko mu fanaan. boo xëyee huile bu bari boo xëyee dafay kii après nga daal di ko segg euh, su ko defee nga mun a am sa huile mais maintenant comme loolu yëpp dafay metti wala wala ñu bari duñ ko mën. da ngay jël sa poobar. nga def ko ci sa benn bool. <laughs> maa ngi sama xam dafa dem léegi si endo yi li ñu wax léegi ci poobar bi ak uh-huh. si kanam bi nga def ko ci sa bool uh-huh. uh, nga daal di jël def ko si tibb nii tuuti rek def ko ci sa kii uh-huh. maintenant bu ko frotter frotter bu bu garaaw bu metti da ngay def doucement nii di ko yëkkati ay mouvement circulaire mm, mouvement circulaire mais dañ lay ñaan bu mu ëpp une minute waaw ah, parce que dafa saf waaw day picoter voilà loolu xanaa c'est pour les peaux acnéiques acné very mooy ñi nga xamante ne dañu am acné wala les peaux euh, très grasses à tendance acnéique mm. parce que comme ñu ni ay excès de sébum affaire yooyu. donc oh. on te dit que da ngay utiliser ay produits astringents. Mm-hmm. boo déggee astringent mooy produit boo xamante ne dafa xaw a fort day picoté. Mm-hmm. donc sa rejoint mooy poobar bi muy wax. Mm-hmm. nga xamante ne day c'est astringent par rapport à la peau. boo ko utiliser pour une peau très très grasse. à tendance acnéique dina ci def effet. voilà ah euh, man damaa dañ kumpa. essayé mhm. naa ko. <laughs> Mhm. <laughs> yeah parce que euh, you know il faut ma ñëw ma wax si parce que ku ma xam man xam na ne amoon naa problème bu mhm. acné et tout donc li tax may dugg sama waañ tout le temps. parce que yu bëree bëri solution yu bëri foofu laa ko amee. Euh, sama biir waañ parce que damay xool ay DIY. do DIY mooy do it yourself. si biir kër mooy yoo xamante ne soxlawul nga ne ah ma doon lu foog ma utiliser ko alors que mi sa biir waañ d'abord si biir bu setee si biir normal euh, léppay normal euh, ci biti euh, kon boo ko mado mi ngi noonu macha allah masque gommage la boo xamante ni pour sa kanam rek la nag attention du pour mm. yaram du pour feneen mais pour sa kanam te si tii zone bi la fépp fuy am karaw ci sa kanam mm. mun nga ko bañ a laal mais nag boo koy yelandi maintenant euh, foofu la truc bi nekk. Mhm. boo koy yelandi. Mhm. boo ko boo booy raxas sa kanam. Mhm. bul jël savon bul jël dara. moom ngay kii boo ko dindee sa kanam da ngay jël euh, ndox. ndox mu mu mu cedd en fait ndox ndox bu bu waaw bu nugg non non bu mu nugg ah, bu sedd lay doon waaw ndox mu sedd la parce que boo koy scrub ak ni mu safee dafay dugg ci say ah, poor ndox ndox mu ndox bu jóge ci robinet rek wala voilà de l'eau froide waaw ndox bu jógee ci robinet comme man dafa xawoon a saf sama kanam tuuti. ma dem euh, balaa ma koy kii dama dugal sama mouchoir euh, sama serviette laa tooyal. Euh, def ko si ziploc bag sànni ko si biir congélateur bi. ak ci ndox nga xamante ne dama pare rek jël ko nëpp ko sama kanam. Mm-hmm. maintenant ñu bëri dañu am problème ki parce que bu ñuy fomp seen kanam dañ koy frotter. Mm-hmm. alors que da nga ko war a da nga ko war exact mooy mapp bi tapotee live mm-hmm. exactly. Um, nga mapp ko and everything. donc boo ko mappee boo ko téyee nii ma doon. ba nga gëm sa bët is very refreshing. et bien euh, kon euh, noonu ci li nga xamante ni euh, mooy mooy utilité pour sa pour sa yaram mm-hmm. waaye pour fi nga xamante ni mooy booster li nga xamante ni mooy sa immune système et mm-hmm. mooy que nga daal di ko def si sa tee wala def ko ci si lépp loo xamante ni mun nga ko naan mun nga ko infuser mun nga ko use mun nga def quelque poobar foofu noonu su fekkee ne tamit da ngay lekk mado mm-hmm. des nga jël ko comme ni mu ni mu wis noonu amul benn ngaañ su fekkee ne abuse loo ko ko. voilà amul benn ngaañ nga bu yàggee par contre mun na la jox ay aigreur d'estomac yu tàng ak yooyu. merci baby voilà mais merci. Euh, parce que li tax ñu wax naan voilà li tax ñuy wax <laughs> madoo mooy que am na ñoo xamante ni dañuy naan bëgg faju léegi léegi wér léegi léegi léegi uh-huh. it's not possible euh, beneen chose bi aussi mooy que problème mu socc mm-hmm. dañu am ay doom poussière bi et mm-hmm. and everything donc da jël sa poobar jël sa ndox mu bax mhm. bu dee am nga citron mhm. nga daggate ko mhm. nga sànni citron bi jël si tuuti poobar sànni ko ci ak ndox mu tàng euh, ñu sëgg ci ah, nga kii ko inhalé ko mooy comme par exemple bu ñu lay vaporiser nga muur nga koy def di inspiré. nga xamante ne day dugg bu baax ci sa ci sa kii yee. dafay inhale. wax nga dëgg dafay inhale ah, da nga koy noyyi et puis ah, mooy côté dépression. effectivement côté yeneen affaire lépp daf lay daal di. Ah, daf lay jàppale. Mm. bu baax a baax kon donc. am na sax ay huile essentielle. huile de. menthe poivrée nga xamante ne baax na da nga koy utiliser boo sojee wala mm. yooyu yëpp. même pour même pour voilà pour euh, diffusion ci kër day joxe benn bonne odeur boo mhm. xamante ne c'est une mhm. bonne odeur ambiante ba pare dafay dafay feeñ ci sa yaram parce que daf lay permettre nga mhm. relaxer xam nga ah, c'est magnifique am na yenn diffuseur yoo xamante ne ndox lay jël donc da ngay def ndox nga jël sa tuuti poobar pas poudre mais doom bi nga xaw ko écraser tuuti rek mm. tuuti nga xaw ko mel ni ko toj noonu mm-hmm. ah, nga sànni ko ci comme ça muy infi muy muy ah, muy diffuser mais again damay insister mm-hmm. mooy que mm-hmm. bu muy yàgg ah ouais lu ëpp tuuru bu yàgg lu ëpp tuuru. Mhm. ndax am nañu allergie aussi si li nga xamante ni ah, mooy poobar. you know parce que lu bëri am na ñoo xamante ne supporté wuñu lu tàng. Mhm. ci seen yaram. Mhm. donc ah, looy def rek def ko ba direct et puis li may wax rek ma ne balaa ngay def dara sa kanam wala def ko si beneen partie bu sensitive si sa yaram. toujours utiliser li nga xamante ni mooy sa loxo bi fii. Ah, da nga ko fay jël nga def ko foofu noonu nga xaar nga xaar tuuti lan la lay jox bu dee da nga ko fa def mu kii arrêté nga xam ne feneen foo ko def ci sa yaram daf lay jox mm-hmm. problème comme maquillage boo koy testé danga koy testé sa loxo lépp danga koy testé sa loxo kon mm-hmm. boog euh, loolu laa indi woon tey comme comme proba euh, again euh, Euh, ak li ma naan soj bi bëgguma aussi. Mhm. Euh, ñu koy defal xale boo xamante ne amagul 5 ans. ah non voilà parce que àndul euh, ak li nga ah xamante ne mooy respiratory system. xale daal nañu yem ci ki nga xamante ne moom moo di naka la ñuy faj xale naka la ñuy pédiatrie mu jox la li nga xamante ne mooy jumtukaay yi war mm. wala nga utiliser buy peut-être bi ñuy naan c'est traditionnel c'est normal. Mm. bizarrement sax dafa mel ni poobar moom mooy xeeñ bu mu bëggee éteendu. Ah, waaw loolu dafa neex dafa bëri <laughs> dafa bëri njëriñ baay citoyen mhm. léegi li ñuy def rek on va faire peut-être benn tampon musical bu ñu dellu see rek ñëw nekk ci wàccaayu euh, tëj émission bi comme ça ñu def ci sunu yeneen yëf n'est-ce pas ànd nga ci kon la yow léegi nga dugal demandé benn son euh, ah. man de xam nga samay son man waaw yow bul dugg ci son bi sax bul dugg ci benn son yow xam nga la dama koy daal di may son rek waaw kay daal di may suwaadu euh, suwaadu jaw jaune b eh, ñaw sama doomu bàyyi la di suwaadu jaw jaw naka jaw farama jaw jaw jaw chimère Sénégal xale bu bëgg jëkkëram kooku ma mbokka am fulla am fayda gëm boppam dégg li koo koy sama rakk ji Suwaadu Jaw jaune be ak euh, Zeynab euh, Zeynab Diop Seynabou Diop waaw seen soppe la. Diop Juba nee na mi ngi leen di béggee moom du waa kër am na dañuy naan Diop Juba soppe Alassane Maale Alassane. mi maamam doon réglé léegi yow noo xamee lii. wala mu nekk Diop Lat joor yi dégg lii waaw ñaar yooyu eh. daal laaj ko ci ban la. Diop Diop Diop joor Dior. Eh. ak soppe Alassane Maale Alassane waaw waaw ak ban. ak bokkalin Alassane ak leen mu ndaw Alassane eh. moom mi nga xamante ne moom la maamam doon réglé géej eh. kooku dama koy may sama mag ji Soxatin Diop mi nga xamante ne anniversaire am dafa passé te souhaité wu ma ko Namoutal Diop mi nga xamante ne sama magu xol la may leen ko ko waaye maam Anta Diop moom itam mi nga xamante ne sama mag la nekk ca Ndar ci cité police ak kon Zeynab Diop mado bii nag laa bëggoon <laughs> am na 70 pour cent <laughs> macha allah <laughs> bàyyaa a yee kon aka nañ ñu may façon. Allez la régie grand ténor de la musique africaine, je dirais, Youssou Madjiguène en featuring de Fally Ipupa pour rendre hommage à ces immigrants yi nga xamante ne comme ils disent ils avancent les yeux fermés xamatuñu fan la ñu jëm xamatuñu lan moo nekk seen xel ndax jaaxle waaye le message reste le seul mun ngeen toog ci seen réew te mun ngeen fi tekkee donc da ngeen di gëm seen bopp te bañ xaddi ndax li ñu naan tôt ou tard xaccu bu dëkkul euh, daggul dikk n'est-ce xacc bu daggul dikk mbaa mu yendoo teg. non Gambie ak Sénégal benn la. jóge Gambie ñëw fii tey. Mm-hmm. mais macha allah mu gëm boppam. dëgg la. am fulla ci boppam ba marque empreinte am macha allah mais lan la nañu toog fii tekkee fii wut kayit yu leer soo ko mën a dem ndax tukki nag macha allah neex na lool. Mm. mais jaarale ko ci yoon. moo gën dem ci ci dem ba ci àll bi. wallaahi di dee. di feebar. Mm-hmm. gisoo ndey teg sa ndey stress. gis euh, gisoo baay. teg sa baay stress métti na. am sorry mais euh, tey euh, Awa Gaye bu amee tey courage. Mm. ñëw. ñu ne ko da ngay ñëw liggéey fii mm. ma liggéey si maa ngi liggéey ba tey mm. ma am courage ne damay teg benn affaire boo xamante ne sama tuuti dërëm laa dajale mu mm. mu mat ah, ah, mat ma matul sax mais dama ko de xaara ñu jéem lii comme ça ñu teg ko mais su ma amoon tey benn pression boo xamante ne sama waajur bu jigéen daf ma ko teg wala sama waajur bu góor est-ce que dinaa xalaat ne dinaa ubbi benn affaire you know um, dañ koy wax rek te gis nga des fois sa yaay da nga gis ko ci yenn situation yi mhm. tout le temps mu dëkkal sa nopp mhm. ah xoolal doomu diw pourtant li ma fi sëy sëyu ko mhm. xoolal doomu diw xoolal kii xoolal kii ay eh, yow gis nga kii doomam bi lu mu ko defal et tout xam nga ñu dëkk si sa nopp social pressure wala tey nga ne sama yaay dafay wujje fi donc damay jóg dem defante et tout come on sa yaay tey yaa ngi koy lor bu dee mm. yow yaa ngi wax sa waay sa sa doom loolu wala mm. yow yaa ngi nelaw rek sa morom yi ñëpp a ngi jóg ut xëy et tout ça rafetul loo fait exactement donte donte tëdd nelaw baaxul da nga ciy gis ponkal yoo xamante ne mm-hmm. wala ay diryanke yoo xamante ne mm-hmm. liggéeyu ñu defuñu dara mm-hmm. fa ñuy toog la ñuy bëgg di toog di régler lépp te loolu yorul réew dëgg la nit da dangay da ngay da ngay liggéey surtout nga am métier même boo amul métier mm. mais jaay mi ngi fi jaayal am sa tuut juróomi dërëm yi ñu may dara rek. juróomi dërëm yi ñu lay may. wala nga agressé nit ki am ko. Mm. wala nga sàcc am ko wala nga teg dil am ko. mais boo ko liggéeyee gëm sa bopp yàlla may nekk ay waajur yi aussi nañu jàppale seen doom yi loolu ko mm-hmm. Mm-hmm. que moo tax nit di sëy fu mu warul mm-hmm. def loo xamante ne waru koo def parce que yaa ngi prêter attention exactement bi nga xamante ne euh, nit yi ñu koy dund euh, euh, kii jooda nit ki bëgg na am fulla bëgg na am fayda bëgg na ko teg si yoon mais bi nga xamante ne opportunité bu muy njëkk gis parce que ku nekk nag gor nga am na ñoo xamante boo leen waxee tuuti rek da ngay yëkkati li nga xamante ni moo nekk ci ñoom jeunesse bi dëgg la am na safaan wa mais pour man ñi ci ëpp même ñi dem université instant bi ñu ngi jéem a jaay ay Dakar ak ay ditax mm-hmm. and everything pour que ñu mën a am something exactly kon boo ko nañ suñu waajur yi gën ñoo jàppale mm-hmm. société bi jàppale ñu tamit am ah, parce que mm-hmm. social pressure moo indi problème yu bari bu ñëpp yemee am ñu gedd seen kër am na ci waajur yoo xam ne rus nañoo xëy laaj seen i doom rus nañoo xëy ne seen doom joxe leen ndékki wala joxe leen añ wala joxe leen reer dañuy takk seen ndigg ngir yor seeni njaboot mm-hmm. njaboot yooyu tey jii kenn kenn kenn waxu leen loo xamante ne war ñoo mën a jékki-jékki ne dañuy dem ci mbëkk mi wala dañuy dem feneen mais boo xoolee sa yaay ne bari na jom mm-hmm. taxaw na taxawaayu góor mm-hmm. nga xool sa baay ne bari na jom taxaw na taxawaayu kilifa mais yow yaa war a bañ a toog jaayal si déet te bañ a agressé wala nga bañ a jël alalu jàmbur. xam nga lu neex si voyage Mado. Mhm. boo dugg booy dem si vol bi. Mhm. ngay dugg di dem di def sa enregistrement say papier mat. mat ni mhm. ngay dem rek nga joxe nga dem. wallaahi sa xel day dal. de sa xel day dal. non seulement dugaloo dara lu négatif. wala dara euh, boo demee Europe. sa heure dugg jot. nga dugg. nga dugg tranquille balaa muy yegg sax. nga pare li ngay def génnaat wala dañ lay respecté. feneen foo demaat da ngay dañ lay jox. et puis du ñëpp a war a dem. dem du pour tout am na ñoo xamante ne am nañu possibilité dem. Mhm. mais bëgguñu dem. Mhm. am na ñoo xamante ne amuñu possibilité dem ñu ngi mhm. forcer dem bi. Euh, you know kon boo ko euh, am na ñoo xam ne tamit aussi dañuy xëy seen kër yi. di xëy fenn. pour ut fa lu ñuy am pour am yokkute. ñu yokkute boobu noonu. fu ñu gisee opportunité boo xamante dañuy dem dañuy dem. mais ambassade yu aussi ñuy may gars yi visa bu ñu ñaanee. loolu gouvernement yi ñoo ko war a lijjanti pour ñoom mais ñoom bu ñu bëggee ñëw na ko. Euh, ñoom bu ñu bëggee ñëw day yomb ci ñoom. Mm. mais ñun sénégalais yi. Mm. xale yi xale yi yi bëgg nañu tukki te bëgg nañu am jom liggéey di teral seen i waajur. ko faciliter. mais suñu gouvernement yi. waaw ni ñuy demee di lebee ay xaalis and everything for infrastructure noonu la waree libre circulation suñu ay documents. parce que tey tubaab buy ñëw fii. day yomb yu bari. mais maintenant ñun bu ñu waree dem. dama bëgg voyager yóbbu sa xaalis parfois yóbbu sa yëpp ba pare boo ñëwaat da ngay duñ la rembourser duñ la rembourser mais en tout cas on garde le message bi nga xamante ne moom le son bi ne ma ci sañse bi rek du ko ruubee mais quand même parlons may ñu <laughs> léegi mu ñëw te xam nga waaw xam nga il faut que mën a sañse <laughs> ndax mooy doomu ndeyu euh, Sidi Kane ba sama mag ji bàyyi jëlal macha allah xoolal lii gold bi gentleman teg ci ñaari galon yi non non non bàyyi Birame ah ah ah ah, ah. chéri Aïda Coulibaly chéri mais. magu magu mbokku dayu ngóone. waaw mbokku dayu Abi Ndour. mbokku dayu taaw suñu mag gi nu mu tudd Seynabou Ndour. ajaratu Seynabou Ndour. mbokku dayu caat caat bi nga xamante ne bëgg sëñ Bamba. caatoo caat waaw fàttali ne. mbokku dayu Bouba Ndour. magu Ndiaga Ndour. Ndiaga Ndour waaw mbokku dayu Boubacar Ndour. papaay papaay. Awa Gaye papa Awa Gaye waaw cëm papaay Awa Gaye <laughs> euh, ñu tudd ko dégguma dégguma parce que dégg naa géwél bu gisee lii day baayu Awa Gaye dégguma laa ilaaha illallah <laughs> Oumba Ndour mooy ah, la bokkal na émission Birane Ndour la jur muy taaw foorul dégguma ay yow tamit. bàyyi awa gay. mbokk ndeyu Ibou Ndour mbokk ndeyu Ibou Ndour mbokk ndeyu Ibou Ndour ak ak Habib. alors euh, comme ni ñuy def rek donc Eva n'oubliez pas de bu fekkee dañu nekk à la fin de l'émission n'oubliez pas de me dire ça à l'oreille mais je pense que amoon nañ benn événement aussi boo xamante ne euh, war na dugg je sais pas si dugg na euh, maa ngi nuyu au passage sama doomu maam maam Clédor. kooku nag moom moo di konku seen ah, sama nijaay la ndax sama maama ko jur maa ngi koy nuyu bu baax a baax mi ngi ñaanal Mariane di nuyuwaale Ro Seen aussi c'est ma tata dem bi nga xamante ne moom moo di soxo soxo soxo seen moom itam ca France maa ngi leen di bigëb bu baax a baax mais Eva je sais pas si tu as reçu Euh, euh photo grand cant bi nga xamante ne dafa war a am samedi 2 mars mm-hmm. waaw kooku nag cant bu mag la boo xamante ne macha allah Euh, day am fi nga xamante ne moom moo di euh, euh, cantu Serigne Touba la organisé par Serigne Assane Sène ca Pikine zone industrielle qui sera animé par Serigne fàllu Seck ak kuréelu xasida bu yaraax kon ñoom itam ñi ngi leen di wax le 2 mars ñi ngi leen di fa jox daje incha allah bu ko kenn wute ndax jotaay bu am solo lay doon ñi ngi waxtaane ki nga xamante ne moom moo di sang bu tedd bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko daroon waaye dañuy dem nag ci li nga xamante ne moom moo di anniversaire yi lii fii je sais pas si moi éventuellement dama am benn anniversaire bu ma soxal donc je vais demander à Paplay de me mettre non c'est pas Paplay ça c'est Ali moo nekk foofu Paplay ci en face de moi yow yaa nekk di duma père boobu nga xamante ne écurie El Hadj Diouf la bokk mooy Ibou Diouf Ibou xale baa ngi lay chifaay <laughs> donc Ali tu vas me mettre un son de joyeux anniversaire en dessous donc Eva je sais pas si la photo de euh, sama yaay ji pare na tata Aminata Tall comme ça elle aussi on va lui souhaiter un joyeux anniversaire donc euh, Eva you get the you, you get the picture. yeah you, she get it. oh my gosh ay bu ma fi déggoon anglais fii du baax <laughs> <laughs> donc dites-moi à l'oreille si elle a reçu la photo. comme ça ñu dugal ko voilà donc elle est en train de voir Eva loolu la ñuy def rek donc les filles yow euh, ma amuloo anniversaire tey kan la Alaaji Latir Diouf Diouf a ñu xobaay mu nga dëkk ca Ndula Ndula Alaaji Latir mel na mi ngay wax rek mu baax mi nit ku yàlla baaxal macha allah jaw dëgg la nit ku jullitee macha allah nit ku am fulaak fayda mm-hmm. nit koo xamante nit ki nga xamante ne yaayam ak papaam dañoo dem bàyyi koog njaboot gi mu taawulee leen. dëgg ko yàlla la fa jàpp. amiin nga cëndu la. dëkk boobu nga xamante ne ñu set ñoo fa nekk. macha allah ñu ragal yàlla. dëgg la ñu bëgg sëriñ Bàmba. Mm-hmm. ndu la boo ko déggee. Mm-hmm. mooy mooy da ngay ñëw ba fi nga xamante ne moom mooy Jurbel. waaw dëkk ba nga cay teg. mooy ndu la foofu mooy. dëkku Alaaji Latir Diouf. ndeysaan sama xaritu xol. tey la bés joyeux anniversaire happy birthday to you. macha allah euh, Latir dundal. wéral mhm. santal. Mhm. tey de. allah donc Eva ma chérie tamit dañuy ànd ak ki nga xamante ne moom moo di Awa Gueye. mun ngeen tegaale son bi ci ci suuf muy jàll dégg li fii quand vous venez si vous avez vos anniversaires you can give me the picture donc xaar leen tuuti Eva moom mooy ñëw après ñu ñëw ci sama tata bi c' est l' de qui. Euh, picture bi nag laa la la dafay dafay tardé. waaye euh, di sama rakk sama doomu baay euh, Mina. Mina je pense que gisoon nga ko waaw Mina sama doomu baay sama rakk boobu nga xamante ne macha allah. Euh, maa ngi xaar rek euh, kuy fëgg buntu bi li ma xam yëpp ci moom. <laughs> Mina li ma la xamal yëpp. ndeysaan Mina baax na. ndeysaan macha allah. Mina du wax dara. macha allah lu ma gis gis gis. macha allah pat lay def du wax dara. mais Awa Gaye da nga am benn. bokk na yu Mouhamed. waaw na yu ki ñu àndaloon ci oto. Sagar Sagar Sagar na sama doom ji Sidi Diémé. Sidi Diémé Mina du wax dara. macha allah pat rek lay def lu da nga am benn cousine bu sant Dramé. Ah, ah. sa taxawaay. Uh-huh. ci sa famille. macha allah macha allah di wax façon bi ngay doxalee. Uh-huh. ak ñoom. ma ne ko nawoon naa awa. dëgg la mais gën naa nawaat awa dëgg la. Mm, <laughs> ba doo eggali sa waxtaan en direct sénégalais di la seetaan. njagaa nit ñi seetaan yaa ngi wax sama famille man. lu baax doo eggali. waaw mais nan laay waxee sa famille. mais la mooy problème bi doo eggali yow. télé bi nañu nekk direct la. yow à tout moment yow njaga mun na woo madame ba yow nga joti sa leetar yow. madame ba sama xarit la keroog sa takk gi moo déplacé wu fa mu ne ñëw nuyu si. waaye yow déedéet alors en joyeux anniversaire. kii bi buy ñëw non non non non non mënu ah saag baa ngi nii waaw sa junne gi nii sama junne bi ku ko jël. dana noonu euh, Mado euh, ma nekkoon ride euh, uh-huh. mooy Mina sama doomu baay boobu nga xamante ni macha allah xale bu yaru xale bu xam boppam xale boo xamante ni dëgg la man damay góorgóorlu sax bi toujours def naan am ah, may référence sam ci man lay xool li ma sol la bëgg sol lu ma mel ni bëgg mel kon boo ko dama lay ñaanal rek gudd fan ak wér mm-hmm. di xaar ki nga xamante ni moo nar a fëgg bunt bi ne ko ne ah macha allah di nga am jabar baax euh, xale boo xamante ni sama bàjjen moo ko yar euh, def si ñoom euh, daanaka lépp lu nekk ci man aussi kon boog di ko ñaanal rek yàlla may ko gudd fan ak wér Mina baax nga yaru nga te doo nettali macha allah macha allah alors voilà donc damay terminer rek ak anniversaire u ki nga xamante ne nag moom moo di sama yaay mun ngeen ko teg euh, di Aminata taal bu Zurich di soxna soo xamante ne yiw baax tabe généreuse euh, bëgg li nga xamante ne moom moo di ay mbokkam tubaar fakàlla macha allah di mbokk ndayu nag ki nga xamante ne moom moo di ajaratu dëggeen chimère baabu mi ñuy jooy te noppeeguñu bi mu ànd ak moom ba tey bàyyiwul kooku nag moom moo di Aminata Tall bu Zurich euh, képp koo xamante ne dugg nga ci Zurich moom moo lay dal dalal ah, di organiser ay daayira chaque dimanche fa la ñëpp di dem ci këram di jàng alxuraan muy togg di yàkkale kon nag yow dañu lay ñaanal gudd fan ak wér di la ñaanal ah, yàlla sàmm la te nga eggaleeg sa sago en tout cas we love you ah, bi maman demee ba tey bàyyiwoo nit ku am valeur kon nag yaay dundal wéral tata Amina Tatal happy birthday à toi we love you so much léegi li ñuy def rek mbokku téléspectateurs yi c'est vraiment la fin mais balaa boobu nag am naa sama beneen doom bu Sira bi nga xamante ne dafa baax yaru moom itam euh, nekk ca salon ba j'en profite elle aussi pour lui souhaiter un joyeux anniversaire dama fàtte dugal photo mais je m'associe à Monique à Assou à toute la team bi nga xamante ne ñi ngi nekk fële ca Glambay Mado pour te souhaiter un joyeux anniversaire surtout ki nga xamante ne moom moo di sa waajur bu jigéen sa ay doom sa ay borom kër Sira joyeux anniversaire li ñuy def nag on arrive à la fin de l'émission ñu def ni Awa Gueye tàggoo après yow après man ñu delloo antenne. d'accord right euh, Mado euh, damay euh, nuyu sama benn yaay Gambia di anti Gafa. Mm-hmm. Gafa ma lay nuyu bu baax a baax a Gafa sama xaritu yaay la. saa yu ñu gestoo yow la ñuy gis. nga taxaw saa yu ñu toogee yaa fay mujjee. yaa fay njëkk yaa fay mujjee nga doon sama xaritu yaay nag. baax yow xam nga li may wax ah. mm. dama lay ñaanal rek ah, yàlla ah, may la gudd fan ak wér eh, Madou may sant di gërëm bu mm-hmm. baax a baax ñi nga xam ñoo ñu seetaan waaye nee naa leen bu xew bi neex bu dëkk bi jaxasoo ba ngeen fàtte ne eh, mm-hmm. AJ Luxe mu mm-hmm. ngi fii nii pour yéen eh, AJ Luxe nee naa leen am na cuuraay cuuraay yu neex na ay parfum Mhm. yaram ak kër maquillage maquillage. Euh, maquillage defaguma ko. sañse sañse mi ngi fa. Mhm. d'accord sañse yu normal yi nga xam ba pare. Euh, tey euh, li nga xamante ni mooy cheveux. Mhm. cheveux bi ma takk ni cheveux macha allah xam naa rek buñ ma bi ma takk nii. am naa ko ci longueur yi yëpp. ba pare c'est du ak frontale HD. kon boog boo ñu woowee si cinq 78 455 91 91. dañ lay livrer sa perruque foo mënti nekk nag ci àddina. parfum chambre yi ñuy jaay day dem ci say drap say lal sa lépp lépp loo xamante ne day am tissu mm. euh, da ciy dem sa armoire sax nga ne ko fa ci ay huile de corps yoo xamante ne oh my god mm. xam nga fu ñu nekk euh, ñu ngi fele ne la ca Yoff Océan à mm-hmm. côté prix du euh, wala nga wooñu ci 78 455 91 91 foo ñu mun ti bindi message dañ lay tontu te dañuy mm-hmm. livrer partout mm-hmm. bu leen fàtte suñu à partir de 75 000 francs waaye 8 mars bii nii di ñëw damaa bëgg ñu profité parce que damay waajal defa promo 60 pour cent. Mm. suñuy produit yëpp. kon man la semaine prochaine sama box xaw ma kañ nañuy dajewaat. waaw mardi prochain. waaw du ñàkk bëgg naa box bi fii. incha allah waaw incha allah ñu waxtaane ci box bi mm. kooku mënut a ñàkk. c'est important ah, sama box day ñëw ni ko fi teg ñu waxtaane ko ni ma faram fàcce ko ni ci àll dinaa ko fi teg loolu moo mënul ñàkk dinaa ko fi teg <laughs> waaye nag njaganduwul xanaa boobu danga may may pub nag <laughs> ma ñaan dala koy may bàyyee looy tàggoo ma neex la bébé Dieye sama doom. sama rakk. Mm-hmm. xale bu bari jom boobu nga xamante ne. Mm-hmm. su teint bi rafetee. ndeysaan yëloofaat bii la. Uh-huh. ak produit moom bébé Dieye. macha waaw kooku euh, ndeysaan ajaratu bëtër. Mm-hmm. lañuy woowee yaayam. Euh, bëtër Amar. Euh, waaye ña nga mbay la ñuy woowee yaayam. Euh, tey euh, dama ñëw ci soxna may Vessel. koor gaa ngi ñëw Mado. waaw koor gaa ngi ñëw Vessel yaa ngi nii. Mhm. ajaratu soxna may Vessel moo ma jox Vessel yu rafet yi numéro am 77 la. 795. 09 89. Proxaan mi nga xamante ne moo moo ñaw tunique bi ma sol tey moom moo daan def defatina numéro am mhm. dafa doon. huile yaa ngi xam nga timit euh, lii. ah c'est magnifique senteur. Mm. boobu day ah, dem. Mm-hmm. dafay dem. <laughs> bala bi ah. kii moom damay commandé benn box spécial nga xamante ne ah, dama koy yónnee directement à Paris ne ko fi nga xamante ne moom moo di ci 13e jox ko Gauche Fall sama beau frère mmh. mu joxal ma ko Nene Diaw ma grande sœur d'amour que j'aime tellement et surtout mmh. mon petit bébé d'amour ki nga mmh. xamante ne moom moo di Tayiru waaye Thiat bi ba Diaw neex a fekk Bordeaux yow itam yaa ngi ci biir happy birthday aussi à ton garçon donc maa koy ñaanal bu baax a baax Amadou Tanor oh, mon grand frère de Awa Diallo a mi nga xamante ne moom ma ñawal tunique bi. maam jaara jaara maa ngi koy xaar nag dafa yéex de. non dina ñëw. ah mi ngi mi ngi rond point cyprès. Mhm. xale bi bëgg ndayam macha allah tabari jom am valeur. 78. 388 05 18. mooy numéro euh, Proxan Couture. Mhm. ki ma jox tissu bi mooy euh, sama doom El Hadj. 77 euh, ma nga marché Tëngéej. 220 36. 86 mooy hmm. numéro élage hmm. bébé Dieye kontaan naa ci moom encore hmm. une fois parce que Mado xale bu bëggee ndayam bari jom xeex la ndayam te xeexul ndayam fu ñu toll dañ koo war naan jaajëf xale bu bëggee ndayam ba mel ni nday njaay jeg mi nga xamante ne balaa may yeew lay fekk mu defaral ma li ma war a indi macha allah yal na yàlla dolli jàmmam lafal ko cat làq ko fa yàq yàq fii laay xaaral ma yegg li Mado fii moom laay wax ni Mado Mado euh, euh, euh, de toute façon merci dama la ko ñaan Mado